diine xam-xam ba ni ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu war a jàngale ci école gouvernement bi ñu jël ko muy jàngale ba tey tamit ci école gouvernement bi waaye loolu teewul mu continuer tamit ci njàngalem diine moom nga xamante ne mi ngi koy def ci daara ji mu yor ci biir këram ba tey tamit mën nañu wax ne yëngatu yu mel nii nga xamante ne ci la mu assas bi yëngatu yëngatu yooyu tamit kemtulaay kàttanam mu ngi ko ci def ndax lii nga xamante ne mooy mu assasatul Wafa bi xorxi iman bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko taxawal ñoo ko sos te boobaak léegi war a toll ci fukki at ak benn kon mën nañu wax ne moom yëngutoom yëpp génnul liggéeyu liggéeyal diine liggéeyal diine ci biir kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Touba moom nga xam ne tey jii nii moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ci sopp goo xamante ne sopp na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba sax mu tuddee ko moom ci thème bi al aashiqul akbar ki nga xamante ne moo gën a gën a bëgg xam naa ne si njëlbeen waxtaan incha allah dana ñu andil rek wàccuwaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fan la ko suñu borom teg naka noonu tamit su ci jógee dañu indil bëgg gi nga xam ne moom la ko sëriñ tubaab bëgg ak topp gi nga xamante ne moom la Serigne Touba Xaadimu Rasuul toppoon sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam ba dara mu génnul woon sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam kon ci gàttal rek incha allah noonu la fas waxtaan wi fas yéenee doxee xam naa ne fàttali rek ne suba Serigne Abdul Muhaymin la fas yéene dal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane riyaabul axlaax fil aalami siyaasi yi mooy géewu politique yi rafle gi mu rafle ci ay jukko yu tedd ay jukko yu baax ginnaaw suba ci dibeer ji incha allah li ñuy fas yéenee mottlu mottlu li liggéeyu ren bii nii su ko defee ñaan yàlla fekk waa nu koy déwén ñu bari kon ginnaaw suba ci dibeer ji incha allah lañuy yëkkati jataay yi ñaan yàlla fekk la nu koy déwén ñu bari su boobaa nag. borom yi xam-xam yu bari incha allah fas yéene nañ leen daral fii jataay bi bokk na ci ñooñu sëriñ Sam Bousso ak sëriñ Abdou Aziz Majalis ak sëriñ Amsa Jaxate sëriñ Basiru Mbàkke Abdou Xudoos ak ñeneen ak ñeneen incha allah fas yéene daral jataay bi maanaam ñaan rek jataay boobu muy dibeet ji ñëpp rek ñëw teewee su ko incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbàkke ci tomb bu ab solo bi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 ci bokk ak yéen jataay ci jataay yu am solo yi nga xam ne jataay sëriñ Tuuba la jataay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jataay suñ borom la di jataay tudd yàlla yoo xam ni njubug suñ borom gi rek lañ fi waxtaane bis bu ne ñuy ñaan yàlla defal nu tawféex ci jataay bi nongul nu ko te lu fi waay indi rek ci aajo wala ci soxla wala ci bàkkaar mu saafara ko te jégal la lépp jégal nañu ñëpp ci daraja Sëñ Tuubaa di sant itam mbooloo mi nga xam ne ñooy taxawee liggéey bu am solo bi muy mu assasatul Wafa liggéey boo xam ni yàlla baaxe na leen ñu di ko liggéey ci ron Cheikh Ahmadou Bamba te muy liggéey boo xam ne yàlla def na ci barke def ci ak nongu te nongu gi weesuwul tawféex yi nga xam ne moom lañ ci dajal bis bu ne fi mu ne nii fu ruq nekk ci gox bi rek ñu fay dégg lu mel nii loolu ak ndongo lay tegtale ñu ngi ñaan yàlla defal leen tawféex ba dara bañ ko yàq ci daraje Sëriñ Touba ginnaaw lool it waxtaan wi dañoo waxoon ne dañuy waxtaane al aashiq al akbar mooy ki gën a rëy ak sopp ki gën a rëy ak bëgg te kooku man bu ma ko waxee maa ngi ci jublu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu bëgg gi mu bëggoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak nam ca jeexe takk nga xam ne mësumaa gis wala mësumaa dégg wala mësumaa jàng ku mel noonu ci yonente bi alayhi salaam wasalaam loolu lañ bëgg a indi rek luñ ko leerale xam naa dinaa ci jéggalu itam ci njëlbeen gi ndax xëy na gëstu lay doon wala muy ay xalaat wala muy ay setantal yoo xam ni ñoragut lool ba liñ ko waroon a jox ci waxtu ngir gëstu ko itam joxuñu ko ko loolu lépp noo ngi ciy gëstu noo ngi ciy jégalu waaye di ñaan lu mu bon bon rek kenn ku ne am loo ci mën a jariñoo kenn ku ne am loo mën a yóbbaale kenn ku ne am loo ci mën a jànge fi njëkk a tàmbalee mooy ak bëgg bëgg day lu am solo bëgg mooy cosaani mbir yépp mbir moo nekk li fekk duggewoo ko ak bëgg mbir moomu doo ca am njariñ lu ñuy wax buñ seetloo ci kaw suuf sunu borom tabaraka wa taala mbooleem yi nga xam ne mooy tax dundug doomu aadama jag ci kaw suuf da ko def mu lalu ci ak bëgg da ca def bànneex boo xam ni mooy tax nit ki di ca dem di ko jëfandikoo ba tax dund gi mën a wéy xam ngeen ne nit ñi bu fekkoon duñ ànd ci ab sëy kenn du juddu te bu kenn judduwul ña fi ñoo nekkoon bu ñu faatoo ñëppay faatu te sëy ku ko xam-xam ne lu metti la lu doy waar la loo xam ne bu ci bànneex nekkutoon kenn du ci dugg moo tax suñu borom def ci bànneex ngir nit ñi xemmeem ko ba man di ànd ci sëy ngir nit ñi juddu dund gi wéy xam ngeen itam lekk ak naan lu metti la bànneex bi ci nekk bi ci nekk moo tax yigoo mettit wi waaye lu metti la bu bànneex bi tegu woon fële nga des rek lekk naan gi danga nga yëg lii lu metti la temps bi nga ko jox ak ni ngay def loolu lu lu xaw xoromu la waaye yàlla ja def bànneex ngir nga bëgg lekk gi ndax booy lekk ci ngay mën a continuer di dund ba tey nit ki bu juddoo di ab liir gis ngeen yaayam day sonn ci moom lool di ko toppatoo lu ne mu teg ko ko ci coono waaye yàlla daa def ci xolub ndey ji ak bëgg mu bëgg doom ji moo tax mu di ko toppatoo waaye bu dul woon ak bëgg gi nekk ci ndey ji fi mu ne ku juddu daanaka kenn du la toppatoo da ngay faatu ndax coono yi ab liir di teg ndeyam kenn du ko mënu ko toggoo ci lut ak bëgg boo ko bëgg boo ko bëggutoon loolu doom moo tax yàlla def ak bëgg ci ndey ji ngir mu mën a toppatoo liir ba keroog muy màgg nag doog a lijjanti boppam fi ne liñ fi mën a tax a nekk ci àdduna xam ngeen ne mooy alal da yor ay xéewal ci wàllu koppar yoo xam ne dangay dem ca marché ba di góor góorlu aka jànkonte yu metti ba man faa amee dara loo mën a yore sa njaboot loolu nag ab coono la boo xam ne bu dul woon a bëgg alal gi nekk ci yow du la ko jaral moo tax yàlla dafa def ci nit ki bëgg alal ngir mu mën a am dara ba mën ko yore ak njabootam bu ñu seetloo loolu bu ñu ko doon topp day gudd waaye mbooleem lii tax dund gee jag yàlla ko tënk ci ak bëgg kon bëgg day lu am solo ci dundu doomu ak donte doomu du ko yëg nekk noonu it xam ngeen ne yàlla liy maye ci moom dara mooy ngëm ngëm ngëm suñu borom tabaaraka wa taala moo lay may ci moom dara ngëm nag bu ma bëggutoon a guddal dinaa wax tuuti ne nit ki xam ngeen ne ñaar ñoo ko seq ni ñu koy waxee lu bare bari mooy ruux ak yaram wi yaram mooy karkaas bii ngay gis nii ruux nag mooy secret bi nekk ci biir yaram wi nga xam ne moo tax ngay dégg moo tax ngay gis moo tax ngay bëgg moo tax ngay xellu di am xel di yëg di xam ruux googu nag moom lu yàgg la bi nit ñëpp bi dara daata am la suñu borom dajale ruux yépp bind leen taxawal leen ci benn bërëb laaj leen ndax maay seen boroom wala déet ñu ne ko yaay sunu borom ñoom ñëpp ñu gëm kon ruux gëmoon na bu yàgg bi nga juddoo nag yow lañ jël ruux gi dugal ko ci yow wa nafaxtu fiihi min ruuxi ruux day lu sell loo xam ne suñu borom da ko askan ci boppam fi ne ruux gi nekk ci doomu aadama bukkut ak gi nekk ci yeneen bindeef yi ngay gis xar yeeg bëy yooyu ruux googu nag la indaaleel ngëm googu nag fi ne danga ko war a yee mu doog a yeewu ngi li koy yee nag mooy bëgg li koy yee mooy bëgg ruux gi itam moog yaram wi ñoo xaw a nuroo yaram wi day feebar fi mu ne leleg yow boo wéradee wala nga sibru li nga gën a bëgg ci ay xéwal loolu ngay gën a bañ ay ceebu jën ak ay ginaar yooyu yëpp doo ci bëgg dara bu la xeeñee sax ngay bëgg a wàcc loolu tekkiwul ne ceeb bi wala ginaar gi moo am problème yow yaa am problème sa jëm moo feebar ruux gi noonu la ruux tam li ko gën a neex mooy suñu borom ak lu jege suñu borom tabaaraka wa taala saa yu ko bañee rek ruux gi dafa feebar moo tax dañ ko war a faj ni nga xamee ne yaram wi am na ay docteur yu koy faj noonu la ruux gi itam am ay docteur yoo xam ni ñoo koy faj mooy sëriñ si loolu moo nekkoon seen liggéey mooy bu ñëwee ñu xool lan moo lay faj ñu faj la aywa kon foofu dégg nañ dafay euh, maanaam ngëm a ngi ci biiram ngëm googu nag boo ko yeexee ba mu yeewu nga mën ko jariñoo ci sa àdduna doon ab ab mu'min aji gëm soo ko bàyyee nag muy nelaw wala nga topp bànneex yi day mujj di fay di fay ba jeex tàkk xam ngeen ne itam ba tey loolu lu lu bari lañ ci mën a wax mooy ruux li koy neex ak li neex yaram yi wax naa léegi ne bokkuñu fi mu ne léeg-léeg nga yëg bànneex boo xam dalay wóor ne du bànneex yaram yaram li li neex ci moom mooy lekk ak naan ak lu mel ne sëy ruux nag lu jëm ci suñu borom mel ne ngay jàng alxuraan wala jàng xasidoom yàgg dig nga yëg bànneex bu rëy am na ñoo xam dañ dañuy diglu xasidoom yàgg ñu fettasu te duñ ko tey li kenn ci moom wax ne ida tëzatil arwaaxu shawqan te liqa tamaayalatil ajsaabu yaa jaahilal maana mooy léeg-léeg ruux day yëg bànneex boo xam ni day namm suñ borom tabaaraka wa taala bëgg a dellu ci moom tax muy fàttaliku bërëb yu kawe yooyu mu nekkoon ndax moom fu seet lañ ko jëlee dugal ko sa biir jëmm ji bu ko fàttalikoo nag sa jëmm ji faw mu yëngu moo tax nga gis ñuy fett soo kii kon ruux dafa am bànneexu boobu ruux nag li lay may nga yee yi nekk ci biiram benn kale rek la am benn ceeb bi rek la am muy bëgg bëgg nag ba tey mooy bëgg yàlla akub yonenteem bëgg yàlla te boolewoo ci bëgg yonente bi loolu sëñ Tuubaa nee na safahatun maa gururin wa gufuul rajaau xubbillaahi maa bugdi rasul safahatun maa gururin wa gufuul ne yow da ngaa bëgg yàlla wala da ngaa ci yàlla ba yonte bi joxu ko gëdd bëggoo ko nee na yow da dof sa xel dafa neexut loolu mënta ne faw bala laa bëgg yàlla mën a jariñ da bëgg yonente bi topp ko alayhi salaatu wasalaam moo tax gis ngeen yahood yi bi ñu waxee ne nahnu abnaullahi wa ahibaauhu ñun ñooy soppee yàlla yi suñu borom dafa wax yonente bi ne ko wax leen qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su fekkee bëgg ngeen bëgg wax ne dangeen bëgg yàlla dëgg la da ngeen may topp man yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax nag bunt bi benn la pour nga am ngëm benn bunt rek la mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu yonte bi moo ko wax moo wax ne laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmaina am na beneen riwaaya bu imaam muslim bii ma njëkk wax imaam buxaari moo ko nettali beneen bi mooy laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min ahlihi wa maalihi wa naasi ajmaina mooy laa yumin laa yumin mooy ngëm mën a ko am laa an naafiya lil jins lañ koy wax day dàq xeetu ngëm daray ngëm mën a ko am li féeg man yonte bi gënoo maa sopp ci lépp ma gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa doom gënal la sa alal li fekk amoo loolu mënu am ngëm moo tax lislaam yu ci bari ay mbiri roox la ay mbiri spirituel li ñuy wax spirituel côté spirituel da cee am solo képp ku topp matériel bii nii bëgg ko dunde mbirum àdduna rek dangay ngay réere islaam bu fekkoon matériel rek la topp mën nga ne koo xam ne yow yàlla da laa yónni jox la lettre ñëw wax nga nu ko kay lu ñu la ciy bëggee waaye bëgg gi mooy tax nga am ngëm bis boo xamee ne nag bëgg itam foofu dinaa fi leeral lenn muy bëgg xol moo jiitu topp am na ñoo xam dañuy firee bëgg topp fekk loolu njuumte la bëgg ak topp ñaari mbir la yu bokkut bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam ci sa xol bokkut ak nga topp ko bëgg nag bu dëggoo dëgg-dëgg day jur topp loolu bu leeroon li koy gën a leeral mooy naafiq yi xam ngeen ne ñoom daanañ topp yonente bi alayhi salaatu salaam daanañ julli daanañ war daanañ def lépp waaye taxul ñu bëgg yonent bi buñ ko bëggoon di ay jullit kenn leen tudde naa feq am na ñoo xam ne itam leen tax di jaamu yàlla mooy ragal sawara bu leen yàlla ne woon tey sawara amatut ñu bàyyee jaamu yàlla ñooñu bëgg kon taxul leen def la ñuy def kon bëgg day mbirum boppam topp di mbirum boppam bëgg nag gu xol gii mooy jiitu topp bis bu dëggoo ba dëggu nag mooy jur ak topp goo xam ni doo ci ànd ak sa sago ci gàttal rek xam ngeen ne bëgg ci alxuraan suñu borom fi ne dafa wax ne am na ay jullit ñoo xam ne tey ci jamono yonente bi dañoo wax ne nun gëm nañ yàlla yàlla ne leen ah gëmagu leen de lam tu'minu walakin qulu aslam na ne leen nun jébbalu nan di ay jullit rek ay muslim lan waaye doonagu leen mu'min loolu amoon na ci saxaaba mooy ñoo xam ne ñëw wax ne gëm nañ yàlla ne leen gëmagu leen islaam ngeen dugg mooy jébbalu ngeen yéen a ngi julli yéen a ngi woor waaye doonagu leen mu'min amagu leen iman wala ma yadxuli limaanu fi qulubikum mooy iman duggagul ci seen xol loolu mooy bëgg yonente bi duggagul seen xol dëgg-dëgg ba mën leen a jural ak ngëm bëgg yonte bi nag bu dëggoo moo lay jural ngëm ngëm it boo ko amee moo lay jural ak njub inna alladina amanu wa amilu saalihaati yahdihim rabbuhum bi imaanihim yahdihim rabbuhum bi imaanihim ngëm googu moo lay jural njub boo amee ngëm ci la la yàlla tawfeexal ak njub njub nag day yokk di yokk di màgg booy gën di jaamu yàlla yaa ngi koy suuxat mi ngi mel ne garab booy jaamu yàlla yaa ngi koy suuxat di ko suuxat wa yazidu llahu alladina htadaw yàlla da leen yokk ak njub li fekk yaa ngi jaamu yàlla di góor góorlu ba mujj nag jural la li ñuy wax ak ragal yàlla mooy li suñu a wax ne walladina htadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum boo jubee di góor góorgóorlu yàlla da lay yokk ak njub ba mujj mu wërsëgal la ragal yàlla ragal yàlla su la ko yàlla wërsëgalee nag yaa ngi ji buntub wilaaya yàlla moo wax ne ba mu ne walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaayika humul muttaquuna da caa teg na lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim lahum maa yashaauna inda rabbihim loolu mooy kun fa yëkkoon bii sëñ bi wax lahum maa yashaauna inda rabbihim mooy lu leen neex rek yàlla defal leen ko mooy te foofu fii duggagoo ci way ragal yàlla fi ne doo doo mas doo mën a gën a mos loolu kon foofu ngay tàmbalee lahum ñi nga xam ne boo xasee dugg foofu yàlla daal di tàmbali na xéewal ay mbir yu bare bari yoo xam ne moom lay xéewale gaañam ñi nga xam ne ñoom la sopp ndax inna allaha yuhibbul muttaqina fa inna allaha yuhibbul muttaqina suñ boroom wax na ne ñim sopp mooy ñi ragal yàlla te bu la soppee day wax malaayka yi ne leen sopp leen waa ji wax ne itam jibril ne ko ñëwal ci suuf si nga wax ñépp maanaam nga def nga defal ko xabul ci suuf si mooy nit ñëpp dañ koy nongul te duñ ko sañ bañ ku ko gis sopp ko loolu lu gudd la te yàlla it mi ngi waalamu anna allaha ma al muttaqina kon loolu silsile boobu daa bëggoon yéen mënta ñàkk faw ngëm euh, sopp am yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu wér jural la ngëm ngëm gi jural la ak njub njub ngay màgg ba jural la taqwa taqwa nag yeneen i étapes bari moo ca topp yoo xam ne yëpp alxuraan tudd na ko mbooleem li gaa ñi wax te sëñ bi ko wax lépp mi ngi ci alxuraan ak sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam bala maa dugg ci sëñ bi dama lay jëkk a wax yonente boobu loo xam dana tax yow mi may déglu nga mën caa jaare sopp ko am na ñoo xam ne li tax ñu li ko tee ñu sopp ko mooy dañoo topp woyofam googu yi yonent bi dafa woyofoon moom ci wax na ne yàlla dafa yónni jibril ne ko suñ borom su jëwri jibril ñëw ne ko suñu borom dalay tànn loo ñaar bu la neexee mu def la yenn malikan wala yenn abdan bu la neex nga def mu def la yonent boo xam ne da ngay doon buur nekk buur yor pouvoir yoo xam ne jiite lépp doo ñàkk dara bu la neexee mu def la yónnante boo xam ne ab jaam ngay doon di juga ka tële di mën tële di juga ka daanu di aña ka reer léeg-léeg nga añ léeg doon ndékki yónnante bi nee na man ma tànn nabiyan abdan nekk ab jaam di ab yónnant mooy toroxlu yónnante bi da doon ko woyofal boom fi ne këram yu na Soxna Aysa nee na daanañ am ñetti weer cin du fa takk duñu am luñ lekk lu ñëw da koy joxe alayhi salaatu wasalaam Sayyidatuna Fatima doomam mas naa ñëw indil ko aw dogu mburu bi mu ko xewloo ba noppi ne ko ah Fatima sa bàyyi de ñetti fan a ngi yoo xam yoo xam ne dogu mburu yi moo njëkk a dugg ci gémmiñam amutoon lu mu lekk noonu la ko yàlla bindoon moom moo tànnoon ak toroxlu ak woyofal boom waaye saxaaba yi mosuñu ko topp ci toroxloom googu lu mat a bàyyi xel dama joxe ñaari misaal sayduna aliyu sulxul xudaybiya moo doon bind muahada ba accord yi ñu doon bind moo ko doon bind ci lu gudd la waaye gis nga ba mu bindee muhammad rasulullahi te yéefar yi ne ko loolu buñ ko d'accordoon duñ fi nekk di bindante ay accord kon rasulullahi ji da nga koy dindi yonte bi daa wax Seydina Ali ne ko effacer rasulullahi ji Seydina Ali ne ko loolu du ma ko effacer mukk waaw du ma ko effacer Seydina Muhammad ne ko wan ma ko sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ali wan ko ko mu doo ko effacé boobu moom Seydina Muhammad foofu Seydina Ali dafa juuyoog ndigalu Seydina Muhammad ndax dana ko effacé mu ne ko dama effacé waaye daa xam ne li ko yónte bi digal loolu ay teggin da ko jiitu ay teggina mooy ko muy effacé turu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aboubacar ci mujjug yónente bi bi wéradee wéradeem gu mujj gi moom la wax ne ko jiiteel gaañi ba muy jiite ba mu yàgg yónente bi daa génne néegam bi da koo yëg daal di arrière Seydina Muhammad puus ko ne ko jiitul jiiteel wéyal jiite mu daal di lànk topp ci ginnaaw yonte bi jiite Seydina Abubakar di topp ci moom gaa ñi topp ci Abubakar ba noppee yonte bi da ko wax waaw lu tee nga taxawoon continuer jiit jiite mu ne ko maa kaana libni abi quxaafata an yataqaddama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man doomi abu quxaafa rek la du ma taxaw mukk ci kanam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yonente bi yàlla bi kon ñoom am na yonente bi lu mu wàcce wàcce boppam it cër bi ko yàlla jox dañ ko ko daa jox ba tey gis ngeen sayiduna muhammad dalaa wax ne buñ ko mas a wax naa sunu sang mu ne a sayidu huwallah yàlla mooy sang bi waaye loolu saxaaba yi dawuñu ko ci topp gis nañ saad ibnu muaz ci xaswatu bani qurayza keroog ba mu ñëwee yonte bi daa wax ansaar yi ne leen xoomoo li sayidikum mooy jug leen ngir seen sang bii di ñëw te Saad ibnu Muaz kenn la ci ñi nga xam ne yonte bi leen gindi yonte bi kenn du wax sax moo ko gën ndax kenn du leen gën lante da ko da ko faw ko ci lu kenn xamut nu mu toll kon ginnaaw manas naa jugal ngir màggal sang bu ñuy wax Saad ibnu Muaz yonte bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad waxi noppi moo tax saxaaba yi xam ne kon moom daana aaye ku ko jugal bu ñëwee ñuy jug loolu daana ko aaye waaye dawuñu ko ca topp gis ngeen sayidna xasaadum saabit bi nga xamee ne yonte bi mi ngi aaye bu ñëwee ñuy jóg dana ko loolu man duma ko def mukk fu ma la si yéen damay jóg taxaw teg te ne ko ajibtu li man lahu aqlun wa fahmun yara hada al jamala wala wala yaqumu loolu li ma gën a yéem mooy nit koo xam ni dana la séen ak sa taar bii te du jug ngir màgg la loolu man duma ko def ne ko qiyaami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu man jug gi may jug di la màggal kooku farata la ci man moo tax duma ko bàyyi mukk loolu lu mat a bàyyi xel la mooy yonente bi itam ñu xam kon ni nit la waaye du nit comme nun li mu wuteeg ñun dafa bari lu mat xam ne sëñ Tuubaa day wax ne man dan danna anna al muntaqa mithlul foofu fa huwa gumrun qalbuhu ma nuwira képp ko jàpp ne yonente bi moo ngi nit ñee yem kooku ab dof la te xolam leerut xolam dafa lëndam loolu la Sëñ Tuubaa wax yàlla yàlla moo wax qul innamaa ana basaru mithlukum waaye la yàtta yuuxaa ilayya foofu la wuteeg nit ñi mooy yàlla da ko préparé ci anam goo xam ne dafa wuteeg nit ñëpp dama ci joxe ay misaal yu néew rek doog a agsi ci ci des mooy yonente bi fi ne mboolem téere xadis yëpp gis ngeen ñu wax ñu buñ koy misaal dañuy wax ne aw ñaqam moo gënoon a neex xetu misk mooy parfum yi gën a neex ci jamonoom ñaq yonente bi moo gën a neex xet sayidna anas loolu la wax maa chamamtu riixan qattu aw araqan qattu atyaba min reexi wa araqi rasulillahi sallallahu alayhi wa foo xam benn riwaay riwaayat imam muslim da wax ne wala chamamtu miskan wala itran atyaba min reexi rasulillah kooku riwaayat imam imam tirmisi yi waaye imaamul buxaari nett na imam muslim ak ahmad ak ñu bare bari mooy xet ak xetam ay ay aw ñaqam moo gën a neex xet parfum yi gën a neex ci jamonoom te mooy misk loolu bokkut ak ñun kon nun ku ci ñaq boo tuurawut parfum nit ñi bëgg a faatu ndax boo leen jege aywa yonente bi alayhi salaam gis ngeen li sëñ bi wax yaraa waraa wa amaam mooy ci njëlbéenu lislaam dara wax saxaaba yi ne leen bu ngeen bu ñuy julli bu ñuy julli dee leen xool li ngeen def ahsinu salaatakum fa inni araakum min fii kama araakum amaami imaam ahmad noonu la ko nettalee ak imaam buxaari ak muslim ak ñu bare bari mooy da leen wax ne na ngeen xool li ngeen di jullee man ni may gisee sama kanam laay gisee sama ginnaaw kooku bokkut ak ñun ku ci xool fii doo xam la ca ginnaaw kon loolu wuute na ko doon masalan kanam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ibnu asakir nettalee wax ne soxna aïcha wax na ne am na bis puso la ci lëndëm gi làmp bi mu yoroon daanu waaye bi yonte bi duggee leeruk yonte bi kanam gi moo ko niital ba mu gis piso bi ñaw ci lim doon ñaw googu kanam bokkut ak suñ kanam yi kanam goo xam ne am leer gis nga ñi ko misaal ñëpp noonu lañ ko misaalee Hind ibnu Abi Haalata loolu la wax dafa wax ne faxman mufaxaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al qamari laylatal badri moom yonte bi alayhi salaam kanamam dafa meloon ne bisu guddi guddi fukki fan ak juróom ni weer wi leere noonu la kanam gi daa leere nett li yu bari moo ci ñëw Rubaya bintu Muawiz soxna la woon soo xam ni Abu Ubaydata sëtub Ammaar ibnu Yaasir moo ko mas a laaj ne ko waaw melalal ma yonente bi alayhi salaatu salaam nan la meloon mu ne ko yaa bunayya law raaytahu la qulta shamsu taalia boo ko gisoon di danga nga naa jant bi ci moo fenk kanam ko dafa leer ànd ak leer guddi gi dara leeral sax bërëb yi mu nekk googu kanam bokkul ak suñu kanam yi kon nañ gis ne kon ni ko yàlla binde yooyu ma wax du ay mujisaat de yooyu mooy bindam ni ko yàlla binde kon bokku koog ñun amutoon ker masalan bu bu bëccëgee amut takk ndeer guddi gi itam bu weer génnee du tax mu am takk ndeer yooyu yëpp da ngay xam ne kon kii bokkut ak nit ñi ba ba pare itam ni mu daa gisee ci guddi noonu la daa gisee ci bëccëg lu mu lëndëm lëndëm day gis alayhi salaatu wasalaam ak yu bare bare yoo xam ne mënoon naa ko wax waaye dama koy bañ a bañ guddal bu ñu xoolee alxuraan yi suñu borom tabaaraka taala ni mu koy tuddee ci alxuraan ak gëdd gi mu ko jox ci nga xam ne kii it wuute na ak nit ñi gis nga suñu boroom dafa wax ne jaam bi bala mu laa jéggal wala mu lay bëgg yow jaam bi ak koo mën a doon faw da ngay topp sayidina muhammad dafa aj moom ak bëggam ak njëggalam lépp ci topp sayidina muhammad qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum mooy bala mu laa bëgg moom yàlla wala mu lay jéggal da ngay topp sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kooku du jaamu ordinaire du jaam bu ndaw am na foo xam ne yàlla dafa xam ne na ngeen topp yàlla waaye ak ab yonenteem wa laaxa war rasula da topp yàlla akub yonenteem topp moom xanaa yàlla rek xanaa man nga ne yàlla rek la war a topp waaye na topp yàlla ak ab yonenteem te lool li mu ko wax daa bari ba muy wax mooy itam dafa xam ne wa man yaasi llaaha wa rasulahu ku mooy yàlla ak ab yonenteem ba muy wax ngëm dafa xam ne yaa ayyuha alladina amanu aminu billahi wa rasuli nangeen ngeen gëm yàlla ak yonenteem bi ba muy wax weddi itam illaa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ñi weddi yàlla ak ab yonenteem aywa ñi yàlla di xeexalit déclare leen guerre gis nga fasanu bi xarbi minallahi wa rasulihi mooy nañ jàpp na yàlla dana xeex ak ñoom waaye moom akub yónanteem mooy xeex ñoom innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu ba ci yéefar yi bi yàlla yi wax ne accord yi ma siñante ak ñoom dindi naa ko seet naa ci ba dara laa ci jàppatut aay bi mu wàcc mooy baraatu min allaahi wa rasulihi ila alladina ahadtum min yàlla sax ñi nekk seen kilifa innama waliyukum allahu wa rasuluhu ay wa man yatawalla allaha ba ci ñii gàddaay jëm ci yàlla day wax nañ nañ gàddaay jëm ci yàlla ak ab yonenteem wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilallaahi wa rasulihi ba ci xaraamal dafa wax ne walaa yuxarrimuna maa xarama llaahu wa rasuluhu li yàlla xaraamal ak ab yonenteem ba ci yàlla jox sax am na foo xam dafa wax ne walaw annahum radu maa aataahum llaahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allaahu sayutina allaahu min fadlihi wa rasuluhu nga gis foofu ñi muy jox ba ci ak jox ngëneelu suñu borom yi mu wax ne leen yàlla jox ak ab yonenteem ba ci li yàlla digee day wax ne qaalu hada ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu ba ci atte bu ci tuddee boppam day tuddaale yonente bi wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul xiyaratu min amrihim ida qada allahu wa rasuluhu ba ci jigéen yonente bi alayhi salatu salaam in kuntuna turidna wa rasulahu ba ci jaayante gis nga dafa wax ne inna alladina yubaayiunaka innama yubaayiuna allah mooy ñiy jaayanteeg yow ñi ngi jaayanteeg seen borom innama adatu xasri la waxut ka annama innama yubaayiuna laaha ak yeneen yoo xam ne sax damir bi far bere da leen koy boole ñoom ñaar allahu wa rasuluhu ay yurduhu hu boobu xamoo allahu lay del wala rasuluhu allahu wa rasuluhu yii may wax ni xaw naa kii waaye yu am solo la ci kii gëstu xam ko xàmmee kan mooy yonente bi alayhi salaam dara ju kawe la ko yàlla jox du jaam boo xam ne mook nun a yem bokku ñoom moom moonu fawqa ñun mbindeef yépp loolu faw nu xam ko yàlla gis nga bi mu wax istajibu lillahi wa lirrasul ida daakum daakum foofu benn damir bi waxu daawaakum ñoom ñaar daakum xamu ko ci woote yooyu yu bari la ci alxuraan yoo xam ne yu mat a la yàlla wax na ci alxuraan ne boole yónente yépp ci ñoom benn accord boo xam ni mooy bu sayidna muhammad mi ñëwee na ngeen ko topp na ngeen ko gëm wa ida axada allahu mithaqa annabiyina lama aataynaakum min kitaabi wa xikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wa la tansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min alshahidina fa man tawalla baada dalika fa ulaika hum alfasiquna kon loolu lu rëy la mooy yónnante yépp yàlla da leen dajale ne leen bu Seydina Muhammad ñëwee na ngeen ko gëm na ngeen ko topp na ngeen ko jàppale gis nga ci alxuraan it suñu borom yónnante yépp da leen di tudd seen tur yaa aadamu uskun yaa nuux ihbit yaa ibrahimu qad saddaqta ruya yaa muusa inni istafaytuk yaa daawudu inni inna ja'alnaaka xalifatan yaa isa inni mutawaffiik yaa zakariya inna nubashiruk mooy yonente yëpp da leen tudd seen tur bu leen di woo waaye sayyidina Muhammad tudd ko benn woowu ko benn yoon jaar ci turam yaa ayyuhal rasul la koy wax ak yaa ayyuhal muddathiru yaa ayyuhal nabi yaa ayyuhal muzammil mooy du jaar ci du ko woo jaar ci turam bis bu tuddee turam bi rek ixbaar la day am lu muy xamle ci moom ba tey am gis nañ moom rek la giñ ci ak dundam la amruka innahum la fi sakratihim yaamahuuna mooy dafa giñ ci dunduk sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba pare wax ne man ak sama malaayka yépp ñu ngi maase di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba pare gis ngeen même bu ko bu bu koy bu meleen lu koy yedd li ñuy wax yedd bu meleen lu koy lu koy def fi ne day jiital jéggal ko afallahu anka ma adinta lahum yàlla jéggal na la waaye nag lu tax nga digal nga nga def nangam waaye day wax nit ñi ne leen nag yéen xam ne li ma sañ wax si yow sama yonente bi yéen sañu leen ko wax wa'lamu anna fiikum rasulallahi loolu la wax mooy na ngeen xam ne yonente bi moo nekk ci seen biir loolu waxin wu rëy la bu pare dara wax ne neen ko wormaal mooy bu kenn yëkkati kàddu fi kawam bu ko kenn woo ni ngay wooye sa morom laa tajaalu duaa ar rasuli baynakum ka duaa i baadikum baadan laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi laa tajharu lahu bil qawli ka baax baadikum li baadin te dafa wax ne bu ngeen dee yëkkati seen kàddu ci kanamam wala ngeen di seen kàddu di gën a kawe kàddoom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu seen jëf day yàqu te du ngeen ko yëg waxu da ngeen am bàkkaar waaye an taxbata amalukum wa antum la tash'uruna wax ne ñi nga xam ne ñooy suufeet seen kàddu ak ami teggin fi kanamam ñooñu la yàlla jox ak taqwa loolu wax na ko ci alxuraan wax ne itam ñi nga xam ne ñoo koy woo di ko joor ñoo ñëpp dañu amutum xel kon jaam bu yàlla teral la turam da ko lëkkaleeg turam fu ñuy eh, nodde da gis bu ñu waxee ashhadu an laa ilaha illallah teg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah bis booy julli itam gis nga faw nga tudd ko ci boo tuddee yàlla tudd ko ci waaw ca taaya ja bu ñuy liqaam noonu di ko tudd yàlla wax ko ne ko yow rek yow yërëm yërëm jaam ñi rek moo tax ma yab ma indi moo wàcce la ci kaw suuf wax ko itam ne ko yow jikko moom yëm yaa ko gën a màgg ñëpp moo tax sëñ tubaa wax ne man danna anna al muntaqa mithlul wara fa huwa xumrun qalbuhu manu wira képp ko jàpp ne sayyidina muhammad moo ngi mbindeef yee yem xamal na yow maanaam sa xel neexut te sa xol leerut ma jàll ci wax ne yónnante bi waxuma la xam naa nit ñi bu amee ñenn ñu ko nangulut wala ñu koy bañ nit lay doon ndax nit moo gën a dëgër bopp ci li yàlla bind waaye jamaadaat yi mooy mbindeef yi ci des yépp a ko nangul xam ngeen dama ci nett li ñett rek ci lu gàtt mooy jabalu Uhud ab montagne la montagne wu ñuy wax Uhud yonte bi dara wax ne Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu day wax ne Uhud day moom dama bëgg man ma bëgg ko yonte bi mas naa yéeg ci kaw Uhud tax nekk fa mook Abu Bakar mook euh, Seydina Omar ak Seydina Ousmane Seydina Ali ba mu nekkee ci kaw euh, jabalu Uhud Uhud yëngutu loolu day wane ne daju dafa bég yonte bi nekk ci kawam mu yëngatu ba ñëpp yëg yëngatu gi yonte bi këdd ko ne ko dalal maa nekk ci sa kaw mu daat dalaat loolu wane ne montagne moom da ko bëgg te gi yonte bi ci kawam da neex am na lu gën xorom loolu mooy dattu garab ak garab goo xam ni yonte bi dañ ko ko tegaloon ci jàkkaam mu daa ca taxaw di ba xam ngeen ne yonte bi comme suñ jàkk ji ni mu def nii néeg bi nga xam ne moom ngay génn rek du yem ci mimbar bi noonu néegam demee woon ak jàkkaam mooy danaa génn néegam rek ñëw taxaw ci mimbar bi même diggante boobu mu daa dox sax yàlla da ko def rawda min riyaadil janna ab dër ci dëri àjjana yi moo ko wax ma nga ñu bind fa boo fa dee mooy diggante néegam ak mimbaram rawda la ab dër la ci dëri àjjana yi bu ma saa génn néegam rek day jawale ca mimbar ba ñoo tolloo comme ni suñ suñ kilifa yi ñoom la loolu la ñu roy ci gis nga day am néeg boo xam ne mooy dend ak mimbar bi booba dañ ko dafa am garab goo xam ne moom lañ ko tegaloon ca la daa taxaw di xutba benn bis nag ñu defal ko mimbar boo xam ne ñetti escalier la comme suñu escalier yi ngeen gis ñett suñu mimbar bi gis nga ñetti escalier la yoo xam ne nga ngay yéeg ñetti escalier ba ñetteelu escalier ba nga doog a toog comme di am fii biñ ko defalee mimbar bi mu génne néegam benn ajjuma ajjuma boo xam ne saxaaba yëpp ngi ci jàkka yi mu génn néegam wuti mimbar ba romb garab gi dem taxaw ca mimbar ba di waaja a xutba ñu jekk dégg yuuxu garab gi garab gi yuuxu yuux gu metti waa jekk jëpp waaw lii lu mu doon ñu ne garab gi yuuxu ndax yonte bi moo ci daa taxaw te tey da ko fay romb dem taxaw ca mimbar ma yonte bi daa wàcc ci mimbar bi ñëw teg ko loxoom wax ak moom ñu laaj ko ginnaaw bi loo ko wax mu ne ko dama laa dama ko wax ne ko su la neexee nga dëkk ak man àjjana mu noppi bi mu noppee yonte bi digle nañ ko suul lu yëpp a ngi doon mooy garab yi sax dañ ko bëgg ba ci gis nga mbëtt mbëtt xam nga ne moom xamul lu muy àll bi ak dugg ci pax lekk ci gunóor yi bi ko yonte bi ne yaa dabbu man ana mbëtt bi maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamina wa xaatamu nabiyina qad aflaha man saddaqak wa qad xaaba man kaddabak mu ko yow dey yonente bi yàlla nga ku ànd yow de kooka de am na xéewal taxe na te képp ku la weddi de kooka perte na àddina ak alaxira yi ma wax yëpp xadis yu wér la xadisu mbëtt mi imaamu tabaraani nettali na ko fi eh, jaamiihi saxiir wal bayhaqi wa abu nuaym fi dalail wa ibnu asakir fi taarixihi wa ibnu mundata fi juzi tarjamati tabaraani ibnu kasir al wa nihaaya li ma waxoon ci uxud yooyu moom xadis yu ñëpp xam la wér ak wéram ba tey dattu garab gi moom dafa xadis mutawaatir la ñëpp ko fekk imaamu Buxaari muslim yëpp ñëpp nett lañ ko ndax saxaaba yëpp ko fekkoon moo tax loolu day tegtale kon mbindeef yëpp ñoo ko bëgg gis ngeen am na koo xam ne sax ak till moo tax mu dugg ci lislaam loolu imaamu Tirmisi moo ko nettali mooy benn sàmm la boo xam ni da doon sàmm ci àll bi ba mu yàgg ak till ñëw fàdd benn gàtt waa jël yat bi rek topp till gi ba till bi bàyyi gàtt gi mu topp ko nag bëgg koo bëgg koo dóor till gi daw ba mu yàgg mu jekk-jekk wëlbatiku toog jàkkaarloo ko waa ji lem ginnaawam toog ci jàkkaarloo ko waa ji ne ko sëñ bi yow lii ma yàlla war sëgale nga bëgg ko nga bëgg ma ko xañ waa ji ne till guy wax daal di tiit till guy wax till gi ne ko dalaa yéem mu ne ko wax <laughs> lii kay yéeme na wax dëgg mu ne ko am na lu gën a yéemu dëkk bii ngay gis nii muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fa ne sayyidina muhammad te ma ngay wax gaañe wax yàlla ak xibaar yi ña jiitu woon til ne waa ji ba tey mi ci tiit mi ngi ci tiitaange ne ko kooku de kon war naa ko seeti mu ne ko demal seeti ko waa ji ne ko waaw sama xar yi laa xamut ku ma koy dénk sama gàtt yi til ne ko dénk ma ko moom ko dénkee dara du sëkk waaj lépp ci tiit la mu ne ko dénk naa la ko kon <laughs> daal di dem ca dëkk ba fekk fa Seydina Muhammad digg bëccëg bi mu ko ko nettalee yonte bi dafa wax bilaal wala kenn ci ñi doon nodd ne ko woodeel asalaatu jaamia mooy wool dëkk bépp nañ ñëw ñu woo dëkk bépp ci penc bi mu ne waa ji nettaliwaatal li nga waxoon waa ji nettaliwaat ko maanaam daal di wax yonte bi ne ko nag bàyyee naa ko sama xar sama jur ga waaye nag cim tiit rek laa ko defee yonte bi ne ko dara doo ko doo ko fekk mu laal ko da nga da ko fekk nanga nga ko meloon mu dem fekkaat ko fa rayal ko gàtt kooka la ko dugal ci lislaam tilga tilga la nga xam ne moom yonte bi alayhi salaatu wa tilli sax ak lépp dañ ko doon jàppale doomu itam kon bu amee kenn ku ko jublut ci doomu aadama lay doon doomu aadama nag saxaaba yi moom bokkuñ ci saxaaba yi jamononteeg moom dañ ko bëggoon bëggu dem dayoo ñoom fiñ aggoon ci ak taalibe li ñoo ak taalibe kenn àggugu fa ba léegi Urwatu ibn Mas'ud moo nett li mi ngi ci saxihu Buxaari ak Muslim ñëpp ko nett li xadis bi muy wax ni xadis bu gën a wér ci xadis yi ndax Buxaari ak Muslim daje nañ ci comme ni ñu ko waxee xurwat urwat ibnu mas'ud dafa wax ne moom xudaybiya sul xudaybiya yowmul xudaybiya moom la yéefar yónni woon ba mu ñëwee xam nga ba mu demee da doon nettaliwaat la mu fa gis da leen wax ne kee ma gis de man mosuma dem ci nit ñu fonke seen kilifa comme niñ fonke kilifaam mooy maata naxama nu xaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dallaka biha wajahu ne man damaa seetlu xaaxtandiku waxu tifli de xaxtandiku sax bu ko defee benn saxaaba da koy alawtiku rek daal di koy raaj ci boppam ak ci yaramam mi ngi saxiix Buxaari ak saxiix Muslim yëmul ci loolu dafa wax ne daa wa ida amarahum am amrahu boo leen digalee dañuy njëkkante kenn ku ne di bëgg njëkk a def ndigal li te wa daa tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala waduihi mooy bu jàppee moom yonente bi ne dañuy xaw a rayante ngir bëgga naan njàppit bi loolu noonu àggaguñ foofu ci bi dafa wax ne wa idaa takallamu xafadu aswaatahum indahu bu ñu waxee ndànk la ñuy wax duñ nangoo yëkkati seen kàddu fi ci wetam wa maa yuxidduuna ilayhi nadara taadiman lahu duñ ko xool jàkk dañuy sëgg ngir màggal ko alayhi salaatu wasalaam buñ gisee saxaaba yi tam mu ñu leen doon topp par benn benn mën naa ci nettali par benn yi tuuti rek ngir waxtu wi xam ngeen sayidna abou bakar as-siddiq ci ñi gënoon a sopp yonte bi alayhi salaatu wasalaam la bokk gis ngeen bis bi ñuy gàddaay jógee madina dem jóge Makka dem Madina la ca xaw lépp waaye bañ demee ba làqutu ca xunti ma na Abu Bakar moo fa jiitu dindi mbubbam gis ngeen pax yi fa nekk yëpp mu sakk ko daal di dugg yonte bi daal di dugg moom ndekete xam nga guddi ga ko jiitu yonte bi daa nelawutoon yonte bi mu duggee rek daa tàmbalee nelaw teg boppam ci lupp Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waaye Seydina Abu Bakar seen seen am pax moo xam ndekete sëkku ko woon da ko fàtte mu jël tànkam teg ca ndekete pax mi jaana ci ne ñu jëkk yekk rek yonent bi moom mi ngi nelaw te te boppam mi ngi ko teg ci lupp Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te jaan ji jëkk jékki na matt tànk Abu Bakar radiyallahu anhu mett mu mett ci moom lool waaye ñi nungu bëgguta yee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu muñ ko jaan ji mattaat ko mattaat ko ba mbir ma mettee ba metti nag la ronkoñ gi tuuru dal ci lexub Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam Seydina Muhammad yow ne ko lii lu mu mu ne ko jaan moo nekk fii moo mat alayhi salaatu wasalaam su yonte daal di koy tifli mu daal di sedd guy jaan ja wàcc ba tey gis ngeen kooku ay tifli tam kon bokkut ak tifli ti gaañe aywa kooku kooku bëggoon Seydina Abubakar wax na ne moom gis nga Seydina Muhammad bi mu fi jógee fi ne ñett mimbar bi ma leen waxoon leen mimbar bi bi mu daa toog nangutoon a àgg ci ñetteelu mimbar bi ci ñaareel ba lay taxaw di ba te bu ma saa wax ba noppi de bu tuddee Seydina Muhammad rek day jooy waa jàkka ji jooy kër ya ya dend ak ñoom jooy marché ba dégg leen jooy dëkk bépp di riir ak i jooy noonu la saxaaba yi meloon ci Seydina Muhammad noonu naa ci nett li yeneen gis nga ci gàddaay gi am na boo xam ne dañoo wër ñu lekk amuñu ko xiif lool Seydina Abubakar ba mu lijjantee lu mu lekk bay indil ko Seydina Muhammad am soow dafa moom nam ko nettali dafa xam ne shariba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xattar tawaytu moo yonent bi dafa naan ba man ma màndi gis nga baayam abu quxaafata bi mu ñëwee di di jébbalu seydina Muhammad da jàbbeeg loolu di ko ndokkeel waaye seydina Abubakar dafa jooy ne ko man bu ma sayoon sa juru sa baay bu ndaw bi ñuy wax abu taalib tey mooy jébbalu te sama baay moom moom moom moom mujj jébbalu ndax moom laa ko gën a yéene sa ndax xam naa loolu moo la gën a neexew aywa am na yu bare bare ku mel ne sawbaan sayidna sawbaan ci daal liggéeyal yonte bi aleyhi salaatu wasalaam la bokk dara taxaw moom benn bis yonte bi daa dem bisu lëmm gisu ko moom sayidna sawbaan bi nga xamee ne yonte bi dikk na rek mu daal di wax yonte bi ne ko aw xastani ya rasulallah mooy da nga maa wéetal da tàmbalee jooy yonte bi ne ko yow yow gën a gaaw a jooy looy jooy mu ne ko dama xalaat yowmal xiyaam bu ñu fa demee yow sa daraja dafa kawe man nga nekk ca àjjana yu kawe man fa may ne mën naa nekk fa suufee du ma la gis te diggante bii ma la fi gisul rek damaa am mettitu xol ci la aaya bi wàcc ginnaaw ba mooy wa ma yutii allaha wa rasul wa rasula fa ulaayika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasuna ulaayika rafiqan aaya boobu ci loolu la wàcc mooy ñi bëgg yonante yi dëgg dëgg bëgg wér ëllëg ñoom ñooy ànd damay jël rek Seydina Bilal a baax di woon bëkk néegu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi lu mu am ci daan alal bilaal moo ko daa denc bu yonente bi nag dadaa joxe joxe ba dara fi des mu ne bilaal demal lebi Bilal lebam boobu daana ci leb bañ nar koo bañ nar ko ca eh, sonal am na yowoot boo xam daa ma sa ñëw ne ko dama lay jaay fayu kooku li ma li ma li ma leb waaye far ay xéewal ñëw fi yonente bi fay bor yi yonte bi da ko bëggoon gis nga am na bis boo xam dana ko yow dama dégg sa yëngu sa dàll yi di karaas karaas yi ci àjjana lu la fa yóbbu bi daal ne ko man de xaw ma lu ma fay war a yóbbu foofu lu may saa yu ma bal ma sama njàpp taje rek dinaa jàppaat bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam génnee àdduna dafa wax ne dootuma nodd ndax bu ma saa nodd ba àgg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah dootuma na te way moo tax mu bàyyi nodd mujj mëntu la doon ci dëkk bi mëntu toog ci dëkk bi madina daa dëkk ba dem saam ba mu nekkee Saam at la fa def genn guddi mu gént gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ma haadihi ljafwa ya Bilal aamun wa lam tazurna ne ko waaw Bilal lii lu ma yow am nga at ñëwoo Madina seet ma ci guddi gi da ko gént mu daal ne bërét xaaju guddi tàmbali dem ca mbaam mi mu amoon tàmbali di takk mbaam mi di di di di ko kii mag la woon booba soxna si yëg ko ñëw ne ko waaw looy def nii mu ne ko man dey Madina laa bëgg dem mu ne ko waaw xaa xaar ba fajar bokk mu ne ko fajar daal di ba takk am mbaam topp yoonu Madina ba mu demee ba àgg ak guddi la fa àgg nekk ca ba nekk ca xabru yonte bi alayhi salaam di jooy ba naa Xasan ak Xuseen fekk ko fa ci guddi gi ne ko yow de lu mën a xew fajar moom yaay noddu yow at mi yëpp ba fi yonte bi jógee lañ la gëj a dégg yaay noddu wax ko wax ba mu ne baax na ca fajar ga ba mu noddee keroog wax nañ ne madina gépp dafa riir jigéen ñi sax dañoo génn jàpp ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo dellusiwaat ndax kaddu gi ci jamono lañ ko gëj dégg waaye nag ànd ak lool lépp yonte bi alayhi salaatu salaam xam ngeen ne ni ko imaam Malik lee ci Muwatta mujj gi mas bis mu mu siyaare ji dañuy wax baqiyan baqiyan ay armeel la ba mu génnee saxaaba yépp taxaw dafa wax ne waditu law laqiitu ixwaani mooy aka neexoon ma gis sama mbokk ya saxaaba yi ne ko awalas naa ixwaanaka xanaa ñun ñooy sa mbokk yi mu ne ko déet mu ne leen déet yéen samay saxaaba ngeen waaye sama mbokk yi ñoom qawmun yatuuna fi aaxiri yi amanu bii bi walam yaraw nii sama mbokk yi dëgg-dëgg aaxiru zamaan lañu ñëw dañ maa gëm te gisuñu ma daal di wax ne kenn ci ñoom am na riwaay boo xam ne kenn ci ñoom day toll juróom-ñaar fukk ci yéen ñu wax ne Seydina Omar moo ko wax ne ko xanaa juróom-ñaar fukk ci jamono ñam jamonoon teel mën leen déedéet juróom-ñaar fukk ci yéen saxaaba yi lay lay tollal kenn ci ñoom ndax antum tajiduuna ala alxaqi awaanan wa hum laa yajiduuna yéen da ngeen a taseeg man ma di leen jàppale sama barke nekk fi ma di leen dimbali da ngeen am ci ndimbal ci dëgg te ñoom jamono yi ñuy taseel duñ am ndimbal kenn du leen dimbali teg leen foofu seen baram ngeen xool kan moo fi koo xam ni amul ndimbal te lim def lépp ay noon di ko kii ngir da nga am bi am na beneen xadis boo xam ni itam imaam muslim moo ko nettali ak imaamu ahmad ak ibnu hibbaan ñu wax ne naa muhammad dafa mas a wax ne min achaddin min achaddi ummati lii xubban naasun yakunuuna baadi yawaddu ahaduhum law ra'aani bi ahlihi wa maalihi xadis bu wér boo xam ne yonent bi daa wax ne sama xeet wi ñi ma ci ma ci ñi ma ci gën a bëgg sama ginnaaw la ñuy ñëw ni am na ci yawaddu ahaduhum mooy kenn ci ñoom dana ne siiw maanaam buñ nekkoon nga joxe sa sa sa sa alal jëpp ak sa waa kër yëpp te nga gis yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mu nangoo joxe alalam jëpp ak waa këram ak léppam ngir teg bër yonente bi alayhi salaatu wasalaam man nag kooku kenn laa xam muy Cheikh Ahmadou Bamba laa gis mu wax ne yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil il bilaadi dahaban sëñ Tuubaa laa gis mu wax ne maanaam suuf sépp buñ ko tegle woon ak alal mu ngi mel ne jumaa ji masala ñu teg fii ay kayiti dix mille rek ci misaal ba mu fees ca kaw loolu ñu def ko jumaa ji def ko dëkk bi def ko réew mi def ko Afrique def ko continent yëpp ba àdduna sépp daj ne dem siyaare dëkkub Seydina Muhammad ne moom gën a lool kooku kon alal alal alalam jëpp gis yonte bee ko gënal yëmut ci loolu dafa wax ne dami wa ahli wa awlaadil fidaa u lahu mooy sama njaboot ak sama dereti bopp ak sama bopp sama lépp ak njot laa ko def ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëmut ci loolu bi ne ko yow jébbal naa la sama lépp laka yaa nabiyu manazili wa mawatini wa mawaadii laka bil alimu taawida mooy samay kër sama bërëb yi ma dëkk sama lépp lu ma am daal jox naa la ko addiya alayhi salaatu wasalaam danaa wax ni itam lakka lisaani ma aljinaani ba sama làmmiñ sama xol bi yëpp jox naa la ko danaa wax ne itam ne moom yonente bi bu ko yëtti himmati wa aqsa matlabi kooku mooy càkku téeful sama sama yitte li gën a kawe ci li may sàkku itam mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne zimaamiyal yawma jaaltuhu abad fii yadi ahmada sama nos sama nos bi jox naa ko moom sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam danaa wax ne wasiilati wa matlabi wa munyati wa junnati wa jannati wa bugyati sayyiduna muhammad afdalu man mada wa man yaati wa man fii sa zaman di wax ne man sama wasila sama càkkutéef sama mébét sama àjjana ne mooy sayyiduna muhammad xam nga am na jaam yoo xam ne leen tax di jaamu yàlla mooy àjjana jee ñuy wax ëllëg xéewal yaak lekk nga ak naan nga xam ngeen am na ci góor yàlla yi koo xam ne bi mu daataa faatu yàlla da ko muril àjjana mu di ko gis xéwal yi waaye dafa wax ne fa in takku manzilati fi lxubbi indakum maa qad raaytu faqad dayaatu ayaami bu fekkee lii rek sopp gi ma a sopp ak li ma doon def lépp bu fekkee lii rek nga ma ko nar a fay muy kër yeeg àjjana yi man sànq naa sama temps ndax lii taxumaa jóg gis la yow suñu borom ak gis sa sopp bi Seydina Muhammad moo ma taxoon di liggéey Sëñ na da wax ne moom yónnte bi mooy sama àjjana wa jannati lu kawe la wax ju kawe la dara wax it ne yonent bi mooy sama daraja karaamati wa mafxari wa jaahi kitaabu rabbi wa rasulullahi yonent bi ginnaaw alxuraan jàllee mooy sama daraja mooy sama ndam mooy sama lépp dara wax itam bëgg gi ma ko bëgg tax na mënatuma bëgg leneen mahat mahabbati al muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada ba taxoon gis ngeen dafa bàyyi woon ñëpp jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonte bi la jaayoo la jaayante woon ubaayiul yawma rasulal mustafa bi xidmatin teg ca ne baayaatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftaridan mooy maa ngi jaayante ak yonente bi ci waxtu yi nga xam ne sama bët tëgg ko ko bët xam nga sëñ Tuubaa dundam ay étape la fii ci Tuubaa lañu wax ne fi la njëkk a gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam njëkk loola yu bari ci yi may waaj a wax ni ak yi ma wax ni ci la ci la ko wax mooy yittem jëpp nekkoon gis Seydina Muhammad moo tax nga mu ne ko maa ngi jaayante ak yow te sama bët tegul ci yow teguwut ci yow baayaatuhu bi fu fuaadi sama xol mooy jaayante ak yow xiina lam tarahu ayni dara koo ñaan itam di ko daa ñaan lu bari ne ko nangul ma jaayante gi mooy yaa sayidi yaa buxiyati yaa matlabi hadi mubayaati ila yawmi liqa ne ko yow sama sang bi yow sama càkkutéef yow sama lépp maa ngi jaayante ak yow ba keroog nag muy mën a tase yow fakun muini ala nafsi wa xud bi yadi te ca dayaa wax ne yaa sayidi yaa rasulallahi yaa garadi inni la dal baabi kal masfuudi fi qarani yow sama sang bi yow yónnte yàlla bi man de maa ngi taxaw ci sa bunt mel ni ku ñu jéng lëkkale ay tànkam lëkkale léppam bu mënta yëngu maa ngi taxaw rek yow laa bëgg a teg bët moo tax ak bëggam lépp yonente bi alayhi salaatu moom la woon danaa ñaan yàlla sax ne ko maa ngi lay ñaan sunu borom nga def ko moom mu bëgg ma wajalanhu muhibbaniya yaa ilaahi dana wax itam ne yonente bi da ko daa wax xamteg yonente bi waxtu ne lim daa wax lépp yonente bi lay waxal da ko wax ne ko yaa ayyuha rasulu yaa imaami xubbi lakum zaadi gadan amaami bëgg gi mën a bëgg yow yonente bi yàlla bi yow sama ilimaan ji yow sama lépp bëgg gi mën a bëgg moom rek laa am ci yóbbal ëllëg yow ma xiyam leen laa fa yaakaar mooy bëgg gi mën a bëgg alayhi salaatu wasalaam danaa wax sax ne diini bi xubbi muxtaarin sama mooy sopp sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam loolu lim ci wax buñ ko toppoon du jeex dana àgg ci wax ne shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi sama xol bi daal leen rek moo koy saafara sama yaram it lenn dong mooy saafaraam mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama wax yi neexit wi sax dafa mel ne neexut a jële ci làkk bi mu ko waxee indi ko ci weneen làkk moom rek la daa waxal gis nga xasidaam yépp moom la ci waxal te bu koy wax ay teggin la koy boole yu mat sëkk ak pëstéef xasida yi sëñ bu lu mu ci masaa di bind pësteef la koy booleel boo xam ni pëstéef du ko féete kaw dana wax ne tafiqtu unaadi unaadil mustafa daata addu bi maa ngi tàmbali wax ak Moustapha waaye boole kooki teggin dana wax yonente bi ne ko yow wax ak yow mooy li neex ci sama xol xitaabu ko yaa xayral baraaya saadati aywa wax ak yow loolu rek moo neex ci man nekk di wax ak moom di waxante ak moom ak donte booba gisagu ko ne loolu rek moo neex ci sama xol am na xasida koo xam ne dama ko tàmbali wax dafa wax ne ahmadu hada qaala inni ahmadu li anna xayral qawli inni ahmadu mu ahmadu mii kat nee na man ahmadu laa tudd waaye li tax mu wax ko mooy li gën ci li nit ki wax mooy inni ahmadu parce que sama soppe ba ahmadu la tudd moo tax li gën ci li nit ki wax li gën a neex ci wax ne ma nga ne man ahmadu laa tudd loolu moom lu mel noonu it la daanele xasida gi danaa wax sax wax na ci xasida gi ñu wax fatxul fataax ne dikru nabiyil mustafa bil madxi aw bis salaati qismati wa ribxi dalika fadlullahi yuutihi liman yashaau min ibaadihi xayran minan dafa wax ne tudd yónente bi alayhi salaatu wasalaam moo xam dama koy tagg wala ma koy julli may wala may julli ci moom nee na yooyu tudd gi ma koy tudd di tagg di ko tagg ak di ci moom nee na loolu mooy sama cër man moom dama yàlla wërsëgal mooy sama bénéfice itam mooy sama tonawu xismati wa ribxi da jëlaat teg ne dalika fadlullahi yuutihi loolu nag bu leen ko woyfal nee na loolu ngëneelul suñu borom la lu mu ma jox nga xam ne day seet ku ko neex ci jaam yi mu jox la ko maanaam tudd gi mu tudd yonte bi di ko tagg di julli ci moom loolu da ko jàppe xéewal bu mag dañu daa teg ne dalika lam ajidhu bi taxayuli bal niltuhu bi mahdi taxsiisil ali dalika nicmatu ilahiya alkarim wa innani an shukriha lastu arim daaka alladi tayaba nafsiya kama aqarra ayni wa shakartu nicma mooy tudd gi may tudd yonte bi di julli ci moom ak di ko tagg loolu xéewal la goo xam ne ay pexe mayuma ko yàllaa ma ko tawfeexal rek moo tax waxtu wu ne maa ngi di ko sant te loolu rek mooy saral sama xol mooy may tudd yoonte bi ak di wax ak moom moo tax gis ngeen dundam gépp da ko tagg yonte bi alayhi salaatu wasalaam moom tagg yonte bi bor la ko jàppe woon lahu alayya daynu matxin wa sala loolu wax na ko ci fu bare bare bare yamini alayha daynu xattin lahu alayya li wajhillahi daynu sanan min zaltasamtu lahu fi kulli ma sanatin dayna imtidaaxin bi ab abyaatin garibaati xad iltasamtu lahu fi kulli masanatin maadaama aqli yaay daynal hadiyaat mooy tagg yonente bi bor la boo xam ni dafa tegu sama loos dama ko war a matal moo tax at mi mu séddale ko ñaari xaaj juróom-benn weer yi day tagg yonente bi juróom-benn weer yi mu koy muy julli ci moom alayhi salaatu moo tax dara wax ne loolu it duma ci jóg ba keroog may génn àdduna du ma du ma bàyyi loolu mooy tagg ko rek lahu alayya almadxu kulla aami min yowmina hada ila ximaami lahu alaya li wajhi min sanati ila wafatiya am tura adada tasyiinu madxihi ila ximaami tursi an il fi lqiyaami li xubbihi li awla biya mooy tagg yonente bi du ma ko bàyyi ba keroog may génn àdduna li feek sama làmmiñ mi ngi mën a wax madi ko tagg maa dumtu qaadiran ala alkalaami am daxuhu bin nasri wan nizaami maa dumtu ala alkalaami foofu la tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam li tax ñu indi kii yi mooy gis ngeen lii danañ ko wane xëy na ci kanam lépp ay tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jukki yi ngeen gis nii nga xam ne mënu mënu ma ko yëkkati sax li ngeen gis lépp yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ko tagg kon moom sax dana àgg ci wax ne loolu wërsëg la wu ma yàlla defal mooy taaba fuaadi wa qaritu aynan lamma ala al madxi ruziqtu awnan mooy yàlla dama wërsëgal ma di ko tagg tagg yu mu tagg yonent bi tam bokkut ak ñeneen ñi ni ñu taggee ak ni ñuy waxee moom aw taggam dafa selloon li gaa ñuy def di way di ci dugal li ñuy wax xësal loolu da ko génne woon ci ay waxam xësal mooy di tudd ay jigéen ay gent ak yooyu loolu daw ko dugal ci waxam dara wax ne man xëyyabtu andamiya an taxasuli bi di dimanin li mat matxi xayri mursali ne man du tudd ay jigéen ak yëf ci biir tagg yu may tagg sama sama sang ba alayhi salaatu wasalaam tey it wax ne tagg yonte bi mooy sama baax mooy sama aada bi jaahi lladi am daaxuhu qad gadat dë bi moo taxit da ko daa wax ne du ma du tàyyi mukk du ma lott mukk du ma dañ mukk di la tagg yubajjilu kulli kullakal yowma ma gadin wa inshaa rabbi laa ura dëhra daa wan yi mooy du ma du ma tàyyi du ma tële waxtu nan rek maa ngi di di la tagg ba pare itam danaa woo nit ñëpp ci leen xamal ne ku bëgg am ngërëmul yàlla mi ngi ci tagg yonte bi alayhi salaatu salaam ridal ilaahi fi imtidaaxil Mustafa loolu wax na ci lu bare bare bari dara wax it ne wax it ne man sama daraja mooy tagg gi may tagg yonte bi alayhi salaatu salaam bi mad bi madxiya dëhra rasulallaahi wa bi salaati alayhi jaahi dara wax it ne gisut menn mbindéef mu yeyoo tagg mu may yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa sanaun lam yakun madxan nabi id lam yakun li gayrihi min manqabi nee nag ku tagg ku may yonente bi alayhi salaam soo tagg dafa réer da ko sànq da ngaa teg sa loxo foo ko foo ko war a teg kenn rek moo am daraja muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bu ngeen gisee itam sëñ bi njëlbéenu dundam gépp xam ngeen ne fii ci Mbàkke la gane àdduna ginnaaw bi la ànd ak ay waajuram dem fële ca Saloum jamonoy Mabba Malik Ba mi ñuy wax Jaxu ginnaaw bi dañ dañ ñëwaat fii Kajoor ak Njàmbur ba ni waajuram wu góor génne àdduna mu doog tàmbali nag di taxawal mbiri boppam ginnaaw bi la jógee xam nga Mbàkke Kajoor gi dem Mbàkke Bawol gee jóge fa dem Daaru Salaam jóge fa sanc Tuubaa waaye diir boobu bépp leen rek moo nekkoon mbébétam mooy mën a am jekku dem siyaara ji sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñaanin wu ne ñaan na ko booy seet booy jàng xasida yi waxtu ne da gis mu ñaan ko ñaanin yoo xam ne nu ne wax na ko ko wal turinil kaabata wal madina yaa rabbi zawral bayti wal madina ziyaaratan anir riya masuna yow suñu borom leen rek laa lay ñaan mooy nga taw feexal ma ma mën a siyaare ji sama sang ba arju bi rahmatihil muhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxiini daaroon mata ma yazurha zairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaqi wa diini mooy maa ngi ñaan suñu borom mu taw feexal ma ma siyaare madina dëkk ba nga xam ne dëkk ba dafa neex ngir dañ ko parfumé ndax yonte bi alayhi salaam fa la noxam noom ya daa jibe daaru matama yarsuha zaayirun li hudan yasaat mooy boo fa duggee rek sa xol day féex loolu bala ngaa mën a xam tekki bi da ngaa dugg ca dëkk ba boo fa demee rek coono boo am na koy fàtte foofu mooy dëkku bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam danaa wax itam moom sëñ bi naa Ah, sama xol di leen rek moo koy saafara mooy yàlla taw fexal ma ma mën a siyaara ji sang ba sayyidina muhammad yu tayyibul fuaada zawrul bayti ma al madinati dana àgg sax di wax ne ma laytani tax taxta qadami xaddiya aw laxadani bi karami ak a neexoon ma mën a dem ca dëkkub yonente ba ba sama lex bi ma fëriñ ko ca suuf sa dana wax ne waaye yonente bi da ko daa wax dana wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lu mën a xew nag donte sama yaram mënta ñëw sama xol bii moom ak sama ruux gi waxtu ne mi ngi la siyaara ji yazuruka minni haythuma kuntu yaa muhyi fuaadi wa ruuxi bil bu busaaraati daa tayyi mooy xol bi kenn mënu koo téye moom waxtu ne mu ngi ma ngay xalaat rek madina nekk fa ruux gi mënu mënuñu ko téye waxtu ne ma nga madina da ci la àgg sax ba wax wax yoo xam ne yu yéemu la xasida gi mu tudde inni bi jax-jaaxi nal muxtaari mashruufu wax na ca ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi mooy sama xol mi ngi gësamu mi ngi tàkk mi ngi amatul jàmm ngir bëgg a siyaare ji raw doom ba moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa laytani tirtu mooy ak a neexoon mu mën a naaw aw lii kaana darnuhu aw niltu zaadan baligan aw qadartu ala qatci almahamati xaytu shawqu maaluuhu mooy ak neexoon ma am yóbbal bu doy bu mën a yóbbu ca sang ba xam ngeen bu njëkk aj yombutoon aj da nga daa dox jaar ci réew yi dox dox ba àgg madina moo tax mu tax mu ne aw niltu zaadan balixan aw qadartu ala qatil mahamati ak neexoon ma mën a dog gott bi àll bi man koo dog rek dem siyaare ji ko li kay azura rasulallahi maljaana yowma alqiyamati mah mahma xaasa taxwif ak lu mën a am ci ay tiita ki i ci yoon wi rek jaral na ma ko danaa wax ak waa waa waa Madina ñi xam ne fa la fa nga xam ne fa la yonte bi tëdd gis ngeen danaa wax ak ñoom di wax ne yéen maa ngi leen di nuyu ahlal madinati minni sarmadan lakum wa abqa salaamin yutibul qalba wal jasada dajaa daa teg nekkoon ne leen fuztum bi kawni ab bi kawni ibni abdillahi jaarakum wa kawnikum xawlahu faltahmadu samada mooy yéen waa Madina day am ngeen lu lu jafe mooy nekk ci yonte bi dëkk ak moom wër ko na ngeen sant yàlla te xam ne loolu xéwal na yooyu dangay yëg ne ak bëgg gu tar moo nekkoon ci sëñ bi daa mujjoon di jàpp ni moom moom dana wax ne wa huwa alladi iqa jismi an ziyaaratihi mooy sama yaram dafa am dañ maa gàllankoor bu mënumaa dem ndax yii daje ma mën a dem ziyaara ji ko mu mënta am mujj nag loolu gën a màgg ba mujj mu jàpp ne man sikk laa amee joo xam ne moo tax yàlla nattoo ma daal mu mënuma ko ziyaara ji mooy yaaqu ni aybiya xatta lam ara walam ara al madinata al munawara mooy dama yaakaar sama sikk ji moo tax mënumaa gis yonent bi moo tax mënuma ko siyaare ji mujj mu jàpp ne loolu sax bàkkaar la far te xam naa daal ñekkut bàkkaar bu ma def bu tax yonent bi bu tax suñu borom xañ ma siyaare ji sama sang ba mooy yànqu ni dambiya xatta ara yànqu ni ay bi ani ziyaara loolu la woon wa artaji bi matxil bu saar yànqu ni dambiya xatta lam ara wa lam ara al madinatal munawwara mujj mu wax waxin woo xam ne dangay gis ne am tiit xam nga ak ñi ñi bëgg dëgg dëgg bëgg dëgg dëgg day ànd akum tiit day ànd ak am tiit ak ragal mooy da wax ne yasuu ni mawti wa ayni tara li ma naqari mooy nara faatu te sama bët du tege ci sang ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam walam aral madinata al munawwara yas yasuu ni wa ayni lam tara walam aral madinata al mujj mu def ko gàcc di wax ne xafaaru lixfir dunubi wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru maa ngi ñaan suñu borom nga jéggal ma sama bakkaar yi sama samay jëng yi nga xobbi ko ci daraja ki nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk siyaare gàcce la ci man te xam ngeen ne moom ñàkk manu saahir zahir moo ko teewal a dem waaye moom mu def ko gàcce waxtu wu ni itam da ko wax ne sama nammeel ak cofeel xam nga shawq shawq mooy mooy nammu ki nga bëgg façon namm boo xam ne dafay tar mettit ba sa yitte jëpp mooy jug dem te te te mënoo ko te mënoo ko gis moo tax mu naan ko inni laka dahra du shawqin fa xud bi yadi wa bil mulaqaati jud li ayyama zamani man de waxtu wu ne maa ngi lay namm maa ngi lay bëgg a maa ngi lay bëgg ak bëgg fi yow maa ngi ñaan nga taw feexal ma yow yonente bi ma man laa gis àgg sax di wax ne kulla zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu kulla zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu kabura azza maa talabtu yaa aziz minka wa maa huwa alayka bi aziz suñ borom waxtu wu ne lenn rek laay sàkku ci mooy nga may ma ma mën a taseeg sama sang ba giseeg moom loolu rek laay yaakaar moom laay sàkku li ma sàkku nag xam naa ne lu rëy la kabura azza maa talabtu mooy li may sàkku ci yow sunu borom xam na rëy na waaye yow dara rëyut ci yow yow sunu borom tabaraka taala lu ne man nga ko mooy man nga ma ko wan dara àgg ci wax ne laallahu yalxadu nii wa yadkuru wa yajburul kasra wa naxwi yanduru li man ak a neexoon sama sang ba xool ma mbaa mu mbaa bëtëb mu xool ko wet gi fi ma ne waxin yu daw yaram yu kawe ci ak bëgg xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytahu laxadani bi karame mooy sama lex bi daal moom laa ko defal muy suuf ci moom sama lépp jox naa ko ko ak a neexoon rek mu teg mu bët waxe ñu kawe àgg sax nag di ko wax ne ko nag sun yow yónnante bi leen rek laay ñaan mooy nga xool ma donte benn xol la rek demaat mooy wandur ilayya bi nadratin tamxu biha ma bi min addaa il xafiyi wa ashfiqa mooy nag ma yërëm yërëm ma xamal ne maa ngi ci métti woo xam ne ma bëgg nga yërëm ma teg ma bët boo ko defee rek sama sama sama lépp saafara sama xol saafara kun munqid wanzur ilayya bi nadratin tan fi shaqa wax na ko ay yoon wax na ne wa nadratan li yahab yunqa dara darani mujj nag muy ñaan suñu borom nekk ko dama bëgg nag nga wan ma ko ndax suñu borom yow dara tëwu la foofu danaa fi wax bala ma ci agsi léegi mooy day am ñoo xam ne gis yónnante bi ci dul ay nelaw dañ ci wax loolu man ku ma dégg nga di ko sikk sa ngëm lay sikk man loolu ngëm fekkoo yow nangu nga ne nit man naa toog fii ci ab télé mu jàkkaarloo ku nekk Amérique mu ñu di ko defal bas mu baasir en direct ñu di mu di ko seetaan koo xam day wax image bi ak ak ak son bi nga di ko gis ki nekk Amérique nga toog fii nga yaakaar ne yàlla tële na yonent bi alayhi salaam mu defal lu mel ne télé nga di ko séen fa mu nekk ci xabrum ba loolu ngëm fekkewu ko loolu nag borom xam-xam yi borom xam dëgg-dëgg du ko sikk sàkk Jalaaluddin Suyuti def na ci téere bu am solo bu ñu tuddee tanwiirul xalak fii imkaaniyat ru'yati nabii wal malak waaye am na beneen téere boo xam ne maa ngi koy tegtal ku koo xam ne bëgg na cee gën a yokk mooy téere bi tudd al muqida fi ru'yati nabii sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan ku ñuy wax fadilatu cheikh Hicham ibnu Abdul Karim moo ko def al alusi ci ñu mujj ñi la bokk bu am solo la moom bi rek boo ko liree doo sikkati loolu mën a ne aywa kon loolu lu ma la moo tax sëñ bi gis nga danaa julli ci yonte bi di ñaan suñu borom mu wan ko ko ilahi fa salli bi gayri intiha ala al mustafa dil muhayya sabih salaatan turini huna wajhahu iyaanan li yasfiya qalbil jarih mooy suñu borom maa ngi ñaan nga julli ci yonte bi alayhi salatu wasalam julli koo xam du yem fenn borom kanam gu leer gu taaru googee maa ngi ñaan nga julli ci moom julli goo xam ne nag li ma ci sàkku ci julli googu mooy nga wan ma ko nag ma teg bët ma teg bët xar kanamam ba ngir sama xol bi mën a saafarawu mën a féex mën a am mën a sedd moo tax nag taraay woowu bi mu ci àggee nag ci fii ci Touba bi mu fi nekkee ci atum Aïssa Sine 1311 muy 1894 nga xam ne ci déwén si a dem ci géej gi ca Ramadan ja sëñ Basiiru nett li na ne sëñ am satu jaxate moo ko nettali ne ko sëñ bi nee na ca ramadaan jooju la gis yonte bi aleyhi salaatu wasalaam gis bu njëkk sëñ Basiru nag leerul ci njëkk beeg mujj gi waaye ni sëñ Abdulaat daan waxee ci lañ dégg boobu mooy gisam bi njëkk rawatina sëñ Basiru dafa wax ne ba mu ko gisee waraa sitrin raqiqin mooy dafa am rideau bu dox sa diggante ak moom mooy keroog ca ak koor la ci Tuubaa booba la fay doog a sanc gis nag yonente bi waaye waraa sitrin raqiqin shaffaaf mooy dafa am lu benn lu mel ne rideau mooy gis ba dese naa leer tuuti ma ngi koy séen di seen jëmm ci seen gaañum àndal keroog nag la sëñ bi xolam féex waaye sëñ moom dara daa feesu bëtam daa gis yonente bi mu ànd ak ay gaay yu ko jege mu ne yonente bi gaay yi jege yow loolu ñoom laa bëgg nga ah, jege yow ni ñoom maa bëgg nga ànd ak yow jege yow ba mel ni gaay yi wala ma weesu leen yonente bi ne ko ah gaay ñi de ay saxaaba lañ yoo xam ne ñu ànd ak man di xeex lañ daa def moom mënatut a am waaye seen daraja moom yàlla mën na ko may ku ne soo ko bëggee nag faaw nga góorgóorluwaat da nga sonn de dañ la teg natt yu bari da ko muñit te jàmbat sëñ bi ne ko nangu naa <laughs> aywa mooy li waa ji wax ne adib bi ma chita gayra al bu'di anka tajid aw fa muhibbin yurdika bi ma yurdika mubtahiji mooy gaa ñi bëgg dëgg-dëgg ñoom li ñuy wax mooy bëgg maanaam mbugal moo mën a teg rek nangu naa leen rek laa moo mel mbugal rek laa mënta laa mënta gàddu moom laa mënta dékku muy sori la di wax law qaala tiihan xif ala jamril gada la waqaftu mumtasilan walam ataraddad li waa ji wax ne sama soppe bu ne moon taxawal ci xal yi sax ma taxaw fi te du ma xalaat loolu la sëñ bi wax mooy sëñ bi li ko yónte bi wax ak ni mettite mu yoonu géej gi yi koy xaar mu daal ne ko nangu naa yonent bi ne kon baax na boobu mooy gis bi njëkk xam ngeen ne booba ci déwén sa rek mille huit cent quatre-vingt-quatorze la wax mille huit cent quatre vingt ci la dem ci géej gi waaye sëñ bi man loolu sama jàngatu bopp la mooy fi saase daa daa tàmbali bëgg a gaaw aji siyaare Madina balaa dugg ci ay napp ak yëf gis ngeen sëñ Basiiru nettali na ne ne waxtaan na ceeg borom Darou Mouhty ne ko dama bëgg aji am na naar bu ñuy wax Mouhamad ibnu Hamdin al Abhumi Cheikh Mouhamad Lamine Diop ne wax na ne ci at moom mooma sëñ bi wax ne ko ne ko hal laka ila al haramayni asharifayni shawqun mooy ndax bëgg nga ndax namm nga alxar mooy Makka ak Madina ndax bëgg nga faa dem waa ji ko ajal su ajal wallahi ma ajal mooy bëgg naa faa dem lool mu ne ko kon dellul sa réew muy Mauritanie nga waaj te ñëw bu at mi jeex na la fekk dañuy dem aji ñoom bu ñu mësaa di aji fii xam nga maanaam njëlbeenu at mi daanaka bu desee juróom benn weer la jóge fii ngir dox ci àll bi ngir dem mag sëñ bi daa naar boobu ne ko demal Mauritanie nga waaj te ñëw nu dem nag aji far naar bi nee na man ba ma demee bay waaj ba at mi daataa jeex ca safar wa rek la dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci géej nga xam ne sëñ bi mu daataa dem ci géej gi bi mu waajee ba jekk ci la ko maanaam far natt bi aksil mu daal dem ci géej gi jot a mën a siyaara ji yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye teewul diiru géej gi ku ko seetlu xasida yi mu def ci géej gi waxtu wu ne cofeel gi ak bëgg gi ak bëgg a dem aji gi mi ngi ci xolam gis nga léeg-léeg mu wax ba ne lu mel ne rumaana rumna shukura léeg mu wax ba ne wa saw sawqu yàq wii nii wax ju kawe mooy sawqu cofeel gi ma am ak nam gi ma namm yonente bi mi ngi may mi ngi may mi ngi ñaas sama yaram wi bu doon ab passé ñu ne mi ngi passé sama yaram wi yekk wii nii dana wax ne wal xob yuddu nii nii daal wax na ko ba tey ci xasida ji mooy cofeel gi ak bëgg gi ma ko bëgg dama teg feebar sax toujours waxtu ne bëgg mi ngi ci moom li mu ko daa faje nag mooy mbind mi mu daa bind ak li lim daa waxan waxante moom ci mbind mooy yu bashiruka al baaqi bi xatti karamatan wa in kuntu an ma madinati daa na yi lu mën a sori sori sama mbind mi moom maa ngi ñaan yàlla mu dina ci bëggal waxtu wu ne rek may bind rek ak di wax a yow diiru mu nekk ci géej gi gis ngeen ne xam ngeen ne ba mu génnee sëñ Basiiru wax na ne bi mu génnee di dem keroog bi ñu ko woowee muy génn di dem ci géej gi ba mu génnee keroog la njëkk gis nag yonente bi gis goo xam ni dara doxut diggante ak moom waaw ah keroog ba muy dem di génn di wuy ji keroog ci yoon wala njëkk gis nag yonente bi gis goo xam ne dara doxut ak diggante moom amut war a boobu ñëw amu ci gis gu leer loolu bokk na ci la ko gën a yokk pëstéef même ramadan jii jii ma doon wax ni léegi sëñ am sa jaxate ak sëñ basiru sax loolu la wax neen ramadan jooja sëñ bi da ca ànd ak cawarte ak pëstéef boo xam ni kenn mësu koo gis ci moom tëlutoon dara gis nga xaali ma jaxate kale ca la fa yónnee kooku sant ñaan tam dem am fay fan di kilifa mëntu koo gis ba mu ko gisee sëñ bi wax ji yeggut sëñ boobu tëlutoon dara lu may nekk ci digg mag yonente beeg ak lu lu koy gën a jegele ko soppam ba rek alayhi salaatu wasalaam biir géej git liiru mu ànd ak noon yi dara wax yéen tubaab yi day xëy xëy na fu ne ñi ngi naan fii kii mooy chef de canton nangam kii mooy gouverneur nangam yooyu yéen koy wax mooy am ngeen di buur waaye man benn buur la am amir yi la daa sayir yi wa mukk si wasilati benn buur la am benn kilifa la am muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama dara wax ne sama sutura séppit mu ngi ci tagg naa muhammad suturi ya fi daare ni madhi muhammadan bi nadmin wa nasrin wa huwa ma sutur tagg yonent bi ak yonent bi tax gis ngeen léppam mu jaral ko léppam xam ngeen ne léegi sëñ bi mujj gi toujours man damay wax ne sëñ bi bu ñu ko jàngat nañ dañoo war a jàngat léppam njëlbeen ak mujjam diir bi mu nekk ci géej gi booba kenn ñi ñi nekkoon kenn xamutoon dana delsi am du delsi tubaab yi mësuñoo gis kuñ yóbbu mu delsi te tubaab kenn ñemewu ko woon moo tax sëñ bi booba ñëpp dañ ko wan ginnaaw ba mu des ak njabootam ak taalibeem tumuranke gune nag daj na ko lu ne itam dal na ko moom ci moom gis nga li mu wax ne xusóor xalaat wal ahlu anni tafarraqat li madxi nabiyi li madxi alladi anhu almadihu xasiru mooy sama kër yi yëpp wét nañ tey sama njaboot gi gisuma leen tasaaroo nañ gis nga njaboot gi boroom daru leen bàyyi loon te borom daru fu mu dem ñu ne ko jógal fi gis nga loolu sëñ Xalil wax ne sëñ seedoo ko ko wax ne ko am na ci at moo xam ne borom daru ci am sàq la fanaan ak njaboot gi ngir tumuraanke fu ñu nekk moo tax sëñ bi ne wal ahlu anni tafarraqat mooy sama njaboot gi tasaaroo nañ te dara teguma ko lu may li matxi lladi anhu lmadixu qasiru mooy ma mën a jot dëgg-dëgg tagg wa li ma ko tagg sax taxul tagg yu mat loolu yu bari la ci wax ba mu fa nekk ci géej gi moom rek la daa waqanteel uxaatibuhu bil madxi wa huwa bi taybatin yaa nga tayba muy madina waaye man yow laay waqanteel di la tagg nabiyal huda taabat liya nafsu haahuna wa anta bi madxi kasalaati jadiru fasal xaaliqi taajila aw bi bi muniyati mooy yow yonenteb njub gi yow sayyidna muhammad man de lu ma yàlla teg neex na ma waaye nag maa ngi ñaan nga ñaanal ma sa boroom mu gaawal ma ñibbisi ba mën a àggale sama yéene bi mun yët yi mooy sama mébét mi ma mën koo àggale man mébét mi damaa jàpp ne mooy bëgg rek wéyal siyaare yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ma saa di ñaan xettal sax yonente de axis nii axis nii yaa shafii maa ngi ñaan nga xettali ma yow sama sama xet yow mi xettali nit ñi maa ngi ñaan nga xettali ma su ma saa jàq loolu lay xam ngeen ni ci alxuraan nit Moussa yi am na ci koo xam ne fastaxaathahu alladi min shiatihi ala alladi min aduwihi koo xam ne dañu xetli ko ci Moussa ba tax istixaasa loolu dara nekku ci ci ci ci mbindeef loolu lépp nag xam naa mel na ne waxtu yi mi ngi sori waaye ma wax ne Sëñ Tuubaa moom lu ko masaa dal day jàpp ne dogalub suñu borom la da koy neex loolu gaañ yàlla yi loolu la ñuy jàngale dañuy wax ne yow bu la dal dalee même dañ koy misaal ci tey nga am feebar boo xam ni daa nekk sa tànk bi di yéeg jëm sa bopp bi boo demee ci docteur yi dañ lay wax ne bu ñu dëggu tànk bi feebar bi day gën a yéeg moo tax dañuy dagg tànk bi feeb docteur bi la koy fajal ne di dagg sab tànk dagg tànk dagg sa tànk xam nga metti na waaye teewul yow danga koy sant ndax xam nga ne bu ko defut lam lay jural du baax ñoom noonu lañ jàppee natt yépp wa dañuy jàpp ne natt mën a rëy rëy daa day li gën rek moo tax yàlla teg ko foofu lañ ko tegoon moo tax sëñ bi dawut jàmbat dana wax ne nasaxtu bi sukri shikaayat yi fala asku lahu durri mooy man du ma jàmbat da ko jaayante woon ñoom mbir lu metti metti da di yokk ak ngëm yàlla lii waa ji wax lii ladatun fii dillati wa xuduwaay wa uhibbu bayna yadayka safka dumoyi leen gën a neex mooy ñu am jafe-jafe ba toog seen kanam borom tàllal ko seen loxo di ko jàmbat seen i aajo loolu mooy li gën a neex ci ñoom waaye loolu lépp nag tekkiwut ne tubaab yi tooñu ñu ko tubaab yi dañ ko tooñ tubaab yi man gis naa ne liñ def ak ak ak lu mel Libye mooy taxaw ci kanam àdduna bépp reconnaître ne dañoo tooñoon seen mag ñi loolu war nañ ko def ak Sëñ dañ ko tooñ tuumaal lañ ko yoo xam ne dara saxu ci ñu génne ko dundam gépp ñu téye ko xam ngeen ne géej gi juróom-ñaari at fa dem waaye bi mu ñëwee taxu ñu bàyyi ko juróom benn weer la am ci weer ci réew mi ñu jëlaat ko yóbbu Murtani mu def fa ñeenti at ñu jëlaat ko fa yóbbu fële ca kii Thiel mu jë mu def fa juróomi at ñu yóbbu ko fële ca euh, Njaareem mu def fa fukki at juróom yoo xam ne résidence surveillée la Touba sax muy ñu mu dem fa fi ne kenn ci mbokk yi ku ko jege di mbokkam mu bokk moom lépp bi mu nelawee suñ bëggoon naa dem ca rob ba wax nañ ne ca Mbakke waaye dañ koo gàntal nangu ñoon mu génn bis bu set dañ ko daa wax ne faw nga jóge sa kër ñëw kër gouverneur wax ne ne man dégg naa sëñ ba Basiru mi mu nett li ne borom Darou Mouhty mas na faa dem mag ñi jàmbat ko bu nekko daal sëñ bi daal lii ko tubaab yi def loo metti bis bu set nga xëyee sa kër dox dem kër gouverneur moo tax sëñ bu masaa di génn gis nga mag ñi dañuy wax ne dawut nuyoo sëñ Cheikh Sarr juñ na ko ne bu daa dem gouverneur du du nuyoo ndax sëñ bi bu dee ko du nuyoo du dem mag ñi seen yitte jëpp moo daan gis sëñ bi fi ne bu masaa génn tànk bi fu mu teg tànkam gaa yi tibb ko li sëñ mët lam jëf dagana wax mooy mag ñi sëñ bi ku ci dugg ci kees ba gis fa xaaxta ni koo xam da nga xam ne lii siñ bi da jógee keroog yow sa sa xéewal am na mooy da ko daa tibb rek daa di ko xewlu noonu lañ ko daa sëñ bi daa mujjoon kër gi doxantu gi mu daa doxantu xam ngeen ci ci wetu kër gi da ko mujjoon defoon ay barrières yoo xam ne ci lay dox ndax mën di nuyoo bu doon nuyoo du fa jóg moo tax bu ma saa dem kër gouverneur du nuyoo borom door nag ba mu demee mag ñi wax ko loolu daa dem ca gouverneur ba ne ko sëñ bi mag la li ngeen koy def loo bis bu set muy xëy di leen wuysu yéen ginnaaw xam ngeen ne mi ngi ci dëkk bi te moom lu mu wax dana ko def kay bàyyi leen ko mu toog këram saa ngeen ko soxlaa woo ko ñu doog ko bàyyi mu toog ci këram saa ko soxlaa woo ko waaye dañu daa def bi set mu ñëw taxaw ngir mu nekk moom résidence surveillée la nekkoon faw mu ñëw présenté wu ba ñu xam ne kii mi ngi ci dëkk bi kon tubaab yi dañ koo tooñ li sëñ Mbakke bu sa wax ci xasidaam googu mooy li am sëñ Mbàkke bi sa wax ne kam sibyatin wa dawaatil xidri daaiatun bi nafi cheikhin walam yafaal walam yaquli mooy bari na ay gone yoo xam ne fi mu ne ñi ngi sànq bari na ay jigéen yoo xam ne amatuñ ku leen taxaw te dara warakul waralu ko lu may sëñ bii ñu génne réew mi te moom lam yafaal walam yaqul waxut defut teg ne billaahi fattish wala tuhmil xutuuba fatan lam yaxturi suulahu bil baali mudri abil xaladi lam yaxturi suulahu mudri abil xaladi billahi fattish wala tuhmil xutuuba fatan lam yaxturi suulahu mudri abil xaladi mooy maa ngi lay ñaan ci yàlla gëstul ba xam da nga gis lenn doo mën a wax koo xam ne yow lu bon mës sa toq ci mu xalam ci mu xelam nan nga koy mën a tumaale ba di ko génne réew mi sëñ Mbàkke bi sa loolu la wax xasida gu neex kon sëñ bi dañ ko tooñ waaye moom da doon ab sant kat gis nga bis bi mu ñu bisee ak bis bi mu demee yëpp da ko def bisub sant noonu bu ñuy màggal Tuubaa duñ ko sax coono yam dajoon ndax loolu nekkul suñu xel bisub cant la ko def sëñ Tuubaa lu ne sant na ko yàlla ba ci làkk yépp gis nga day wax lakka sama rabba sama wala ardi rabbal arsi lakka saraftu jërëjëf wa merci mooy ci làkk yépp sant na sax suñu borom tabaaraka ko taala kon loolu mooy géej gi sëñ bi daal ci dugg ca géej ga tax mënatut a siyaara ji yonte bi alayhi salaatu wasalaam waaye mujj muy ñaan suñu borom defal ko ajug xol xaj yi bi xal bi taqabbal mujj nag suñu borom may ko taxañal ko suuf si mu siyaare ko siyaari roox waaye ngir delluwaat rek ngir njëkkante waxtu yi xam naa lépp du mën a mat mooy ne Sëñ Tuubaa buñ ñu seetloo léppam da ko jébbal yónnante bi alayhi salaatu wasalaam gis nga waa këram muy ak njabootam buñ ñu seetloo ñi ci ëpp ñëpp ci yónnante bi lañ jàll man loolu laa gis boo gisee muham lu ñi ci ëpp muhammad lañ tudd muhammad nanga muhammad al yadali muhammad al mustafa muhammad al amin muhammad al jamil muhammad al fadil muhammad al bashir muhammad al muxtaar mu ndaw ak mu mag ahmad al ñaari ahmad ak kabir ak hamid ak muhammad al murtada muy sëñ murtada nga xam ne moom li gën a yéemu mooy loxo bi dañ caa bind muhammad ji moom muhammad kese la ko tudde woon wax nañ ne sëñ daamatu rahmaan la moo ci yokk murtada ji moom dama xamul dama mënta vérifier net bi ba am na net bu buñ ci net li boo xam ni ñii dañuy wax ne Muhammad da ko juddwaale am na ñu wax ne li ko ci def mooy benn bis dafa ñëw ci kër ga këru njëram bi maanaam sëñ Musaa sëñ Mutlaa sax daana nettali nettali bi moom ci moom am na ku ma dégg koo xam ne sëñ bi neen nettali na ko waaye mujj ga laa xamut ba xam wér naam déet ndax dégg naa ko ci ay gaa yoo xam ne xawma ñu ko jëlee boobu sëñ bi dara benn bis daa gis nee na ba kees yi ubbeeku booba booba tu tànk la ne muy dox dem ba àgg ci sëñ ba fekk sëñ baa nga toog fekk booba fan dafa am ku fa ñëw sëñ bi soppi aw turam bi mu bi mu àggee nag mu ne sëñ bi dama bëgg nga soppil ma samaw tur ne sëñ bi tey ci loxo bi ne ko yow saw tur maa laa yan sërif la mooy du soppi ko Muhammad ne ginnaaw boobu lañ gis ñu loxo bi ñu bind ci Muhammad si mat la wér na ne loxo bi dañ ca bindoon Muhammad man gis naa Muhammad gis naa ko aywa kon loolu man li ma koy jàngate mooy xaal ba mu ko fekkee mu téye ko mu Muhammad koo ko bëgg soppaloo sëñ Tuubaa kooku du ko nangu moo leen sërif mooy du sopp ko mukk kon gis ngeen ñooñu ñëpp Muhammad leen tudde gis nga ne yonent moo wax ne aw tur wa ca gën mooy wu tàmbali abdu moo tax ñeneen ñi abdu leen wax abdul ahad abdul samad abdul baqi mu ndaw ak mu mag abdul qadir ak abdul qudus abdul muhaymin abdul wahab ak abdul rahman gis ngeen Abu Bakar moom la yonte bi wax ne su ma doon wut xarit moom laay jàppe xarit moo tax sëñ bi tudde na kenn Seydina Ibrahim xam ngeen ne moom yonte bi dara wax ne man ana daawatu Ibrahim ñaanuk Seydina Ibrahim la dara wax ne man sama baay daawatu abi Ibrahim ñaanuk sama baay ba Ibrahim la yonte bi doo ko jàppe woon baayam moo tax sëñ bi tudd na kenn xam ngeen ne yonente yi itam ñett ñoo ci nekk arab bu ñu ànd ñeent ñoo ci nekk ay arab ñi ci bokk yonte bi xeet ñett lañ mu Seydina Saalix Seydina Shuayb ak Huud Seydina Saalix ak Shuayb yëpp sëñ bi tudd na leen ay doom man waxuma ne lii tax mu tudd leen waaye loolu laa gis ñii ñoo fi bokk ak yonte bi xeet te ñoom rek la tudde ci yonente yi alayhi salaatu alayhimu ñoom ñëpp waa njabootam gu jigéen gi itam ñëpp yonte bi lañu dell fi mu ne yonente bi xam ngeen ne jenn doom ju jigéenam moo fi bàyyi sëtam yi yëpp muy soxna Fatima moo jur Xasan ak Xuseenu ci la sëti yonente bi yëpp jóge sëñ bi am na ñett ñetti Fatima mu ndaw ak mu mag ak ki ñuy wax soxna Fatima Dia Ummu Kalsum doom loon woon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sëñ bi am na ko tudd Ummu Kalsum ba tey Sayyidatuna Aïsa xam ngeen yonte bi dañ ko mas a laaj kan nga gën a sopp ci nit ñi mu ne Sayyidatuna Aïsa moom la gën a sopp ci nit ñi barakallahu fiik waaye sëñ bi am na ñetti Aïsa Aïsa mu ndaw ak mu mag ak gaawaan Aïsa gaawaan soxna Xadija moo nekkoon soxna si yonte bi bi gën a bi njëkk te yonte bi fonkoon ko lool mu gi fi ne su masaa am jigéen ju ñëw joo nekk joo xam ne xaritu soxna Aysa ak soxna Xadija la woon yonte bi da koy jug daal di koy dalal fonk ko lool ba jigéen ñi tàmbali waa këram di ko ci xaw a wax ci noonu mu ko fonke noonu Xadija moomu nag gis nañ sëñ bi am na ñaari Xadija mu ndaw ak mu mag ba tey sëñ bi am na ñaari amina ah, soxna amina moo nekkoon way juru sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi ci des njub gi sayidna muhammad indi woon la leen jëlee masalan xam nga yonente bi lislaam yëpp ñetti xaaj la iman islam ihsaan sëñ yonente bi sëñ bi am na mu'mina mu dellu ci imaan am na muslima mu dellu ci islam am na muhsina mu dellu ci ihsaan am na maskura mu dellu ci sukkur am na tahira mu dellu ci tuhur am na maymuna mu dellu ci yumnu kenn ñaar rek lañ gis mu tudde leen ay doomi jigéen muy soxna jaara ak soxna maam Fatisa ñi sa si yëpp yonte bi leen delloo man loolu laa gis ginnaaw bi itam gis ngeen weeru gàmmu xam na lépp moom du du xaj weeru gàmmu itam ci la yonte bi aleyhi salaatu salaam feeñ waaye weeru gàmmu sëñ bi da ko fonkoon danaa wax ne yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qatan maradi wa kasali mooy yow weeru gàmmu su masaa dikk rek sëñ bi day wax ne man sama taayal gépp dañ na bu masa dikk dootu taayal taayalam gépp day wax ne yow weer wi yóbbaale ko dañ jeex na gàmmu ñëw na taayal jee na feebar it jee na bu feebaroon sax dootu yëgati feebar ngir ne weer bi mooy weeru Seydina Muhammad bu masaa di dem moom weeru gàmmu sëñ bi da koy tàggu wax na ci wax yu bari aba rabiul mustafa wasari siwa rawaaxi wa xayra seyri lam yarumi aba yu bari la wax aba siwa al idbaari bi niami aba rabiu siwa tawdici murtaxilan ba àgg ci aba rabiul mustapha wazari siwa rawaaxi nee na weeru rabiix muy weeru gàmm di weeru sama sang ba dafa bëgg a jeex te man jeex gi neexuma moo tax fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu nee na bi ma xamee ne moom jeex gi mënta ñàkk ma wax ko ne ko sir yaa rabiu wa ma fiya minka min sa ami mooy man ngaa jeex de waaye man du ma yokkat ci yow mukk du ma ci tayal ndax yow ci yow la sama sang ba feeñee alayhi salaatu wasalaam sir rachidan bi fu aadi man ngaa dem waaye dangay nga yóbbaale sama xol yaa rabiu ila man kunta zarfan lahu waqra lahu kalimi boo demee nag ka ka nga xam ne ci yow la feeñoon muy seydnaa muhammad nanga ma ko waxal baat yi ma lay waaj a wax mooy waqul lahu yaa rabiu alxayri inna lahu huna xadiman bi ma yurdihi daa xidami lahu xadimun yusalli bi salaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil qalami mooy nan ko wax ne ko fii dey am na fi ab ab liggéeykat boo xam ni ci li ko neex rek ci la neex di ko wut di ko dàkk di ko jéem am waxtu wu ne Tuubaa itam gis ngeen noon la ko fankoon ndax fa la njëkk a gisee sang bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekk ci géej gi wax nu ne wax na ko ilaahi ilaa Tuubaa ya qudni wa salliman yassir rujuuci li tuuba wa qudni ila tuuba wa an hasri fil ba mooy suñ borom nag ma delluwaat tuuba moo tax tubaab yi xam ngi nga xam ci loolu moo tax tuuba muy ñu kon benn yoon mu demaat fa xam ngi nga xam gi mu ko bëggoon moo tax nanguñu mu dem fa benn yoon gis ngeen bi ñu koy jëlee céyeen di ko yóbbu njaareem ñaari nett li moo ci am waaye am na boo xam ne dañuy wax ne sëñ bi wax na am na ñu nett li neen boobu mi ngi wax ne xay na lee ñu jaar sama dëkk ba tuuba ma tegaat ci waaye far jaaruñu fa dañ koo teggil jaar feneen yóbbu ko njaareem noonu la ko fankoon ngir loolu moo tax it ci liggéeyal ko la ne loolu it bëggoon naa ci wax lu bari waaye waxtu yi du ko may liggéeyal yonte bi damay wax tuuti rek mooy nim façon yi mu bi li ci mooy nekk ci li bi bëgg ak di ko jàngale moo taxoon tënk lépp léppam da ko tënkoon ci sunna si yonte bi alayhi naa ci lu bari dund naa ci lu bari mooy sëñ bi ni mu daa dundee sunnaam léppam da koo tënkoon ci na ko yonte bi daa defee bu daa toog ne yonte bi daa toogee lay toogee buy wax na muy waxee lay waxe buy dox na muy doxee lay doxee xeetu yonte bi gu neex gi sax moom danaa wut ay gëtt yu neex di ko sotteeku muy muy miski ji ngir foo moo tax sëñ bi foo ko masaa so foo masaa jege fa mu ne rek xet gu neex di la xëy waxtu wun daa sotti ko borom yi ba ci lépp lu muy def da koy waxe da ci wax bismillah def nday jooru yéene ak buy buy buy ree du ree day muuñ yooyu yëpp da ca roy yonte bi ba mujj di am yonte bi alayhi salaatu wasalaam naafile yi yonte bi wax moom lépp lu ne yonte bi wax na ko loolu moom moom loolu lay def li itam ci àdduna itam moo moo doon dundal sunna si yonte bi kas bu yamini abadan ixyaau maa qad sannahu aywa gis ngeen feneen foo xam ne dafa wax ne kalaamuhu laa abtaxi bihi badal moom yonent bi alayhi salaam boo xam ji du ma ko jëndeeg lenn moo tax lii sama métier tam mooy jéem a dundal sunnaam rek wa sunnatahu insha rabbi yubayinu maa yujaddidu sunnatahu al-gharra loolu moom xam ngeen ko loolu la digle danaa wax ne wala takun mustaamilan illa bima yuwaafiqu sunnata mimma ulima waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin fa laysa yanfa'u mooy yow taalibe bi lépp looy def fexal ba mu dëppoog sunna xam ne lépp lu dëpp wut ak sunna njariñ dara wax na booy roy na nga roy kii dëppoog sunna fal tas alil aalima waxdul muttabia na nga roy ki ki dëppook ki topp li sunnatil muxtaari xayri man tubia yooyu wax na ci lu bari waaye dama bëgg a leeral fu gàtt rek mooy sëñ bi itam bu seetloo li ñu jëf ci lislaam loolu jafe-jafe lay am xam naa foofu lay daanele mooy li ñu jëf ci lislaam yi ñu nettalee ci yonte bi léeg-léeg day bari day doon ñaari nettali wala ñett sëñ bi nag lu mu ca tànn rek man sikku ma ne loolu moo gën a jege yónnente bi alayhi salaam moom la yoonte bi euh, gën a gërëm ndax settantal gi muy settantal mbir yi ak ñor gi ko yónnente bi ñor ak positif bi mu àndoon moo tax lépp lu mu tànn rek jàppal ne loolu moo gën a jegale yónnente bi def lislaam ñetti xaaj la imaan muy ngëm xam ngeen ñi mu ci àndal mooy ñi ñuy wax ahlu sunna te mooy al ashaira mooy pas-pas bi nga xam ne dañ koy askan ci abul hasanil ashari abul hasanil ashari yorut ngir mu bees susut dara lafi fi yonte bi bàyyi woon ak saxaaba yi moom la dajale défendre ko ba ñëpp xam ne lii mooy njub gi daaneel li ñuy wax mu'tazila yi ak ak shi'a yi ak ñeneen wax ko leeral ko ba ñëpp xam ko loolu moo tax ñu koy askan moom pas bi ci moom boroom xam-xam yi ñëw ginnaawam yëpp ci pas bi boobu lañ nekkoon alxaafiz ibn Hibbaan abul xasan ashari mi ngi fi jóge 333 ci hijriya ginnaaw ba 354 la alxaafidu ibnu xibbaan nelaw gis nga ci kaana ashariyal aqidati ashari la woon abul xasan daara qutni ginnaaw ba la ñëw alxaakimu naysaburi abu nuaym al ashbahaani abu bakar al bayhaqi alxatibu al bagdaadi al imaamu al xaramayn al juwayni ba ci imaamul ghazali ak al bagawi ibnu asakir abu omar ibnu salaah izuddin ibnu abdisalaam ñu wax sultaanul ulama Eh, ki ñuy wax al-Qurtubi ñoo ñëpp booba ibnu Taymiya ñëwagut lépp ci ci juróom-benneelu siècle bu njëkk ba la ba ci imaam Muhyiddin ibnu Sharafuddin Nawawi ibnu Kasir nga xam ne moo jamonoonteel nag ibnu Taymiya ibnu Taymiya moom la ñi ñuy wax salafiyé yi topp ci wàllu pas-pas ñoom ñoo salafiyé rek moo am fu ñu wuute ak siyan yi ñoom ñoo am fu ñu wute ak ahlu sunna ñi ay asaira asaira yi waaye asaari ñoom ñooy mboole maliki yëpp ay asaari lañ saafi yëpp ay asaari lañ axnaaf yëpp ay asaari lañ ndax maturidi ak asaari benn lañ bu amoon jamono dañ ko gën a leeral ñi ci génn mooy tuuti ci ay xanaa bi xanaabila mooy ñoo xam ñoo topp imaam ahmad ibnu hambal te seen kilifa nekk ibnu taymiya kon boo gisee sëñ bi ngir mi mu tànnal mooy mu yonente ma nekkoon ci wàllu pas-pas alayhi salaatu wasalaam bul sikk loolu loolu boo ci bëggee lu gën a leer maa ngi lay téere bi ibnu asakir def tudde ko tabyinu kadibil muftari ak beneen bi mu tudde ahlu sunna al asaira boo xam ni ku ñuy wax fawzil anjari moo ko def ak hamad sinan ak al madahibu tawxidiya bu mouhamad na al ramadan buuti bu dee ci wàllu fiq sëñ bi ñu tànnal imam malik ngirum imam malik ngirum imam malik it imam malik moo dëkkoon madina mooy sëriñub shafii shafii mooy sëriñub imam ahmad imam ahmad mooy sëriñub buxaari yi mi ñuy wax ci nga xam ne moo jiitu gaañu ñëpp te mbir madina la dëkkoon dana wax ne li waa madinay jëf jëlee ko seen bàyyi loolu duma ma ko jëndeek xadisu ahad xadis boo xam ne kenn ko net li xadis ba maanaam ñu folli ko maanaam ke mu maanaam bi waxu ko maanaam am bu ko folliwaat te yëguñu ko loolu lépp mën na ci am moo tax li waa madina maasé di ko def loolu lay jiital ci ñeneen yi loolu moo ko wutal ak yenn gaa yi nga xam ne dañuy wax ne lépp ci xadis rek lañ ko teg imam malik itam boo gisoon histoire boo ko jàngatoon boo amoon waxtu bañ jàngat ko di gis li ko booleeg sëñ bi te mooy moom dafa bëggoon yonte bi moom daana wax ne guddi gum mësta tëdd guddi te géntul gis yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñu bari jël ci seen xadis day wax ne ñoom dañoo bëgg yonte bi moo tax ma jël ci ñoom xadis ayo bu dee ci moom gis ngeen sëñ bi ni mu daa yare seex siidiya da ko wax ne ko antal murabbi bi maa rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fil fil fil jiili sarwaaka mooy yow ni yonte bi daa yare nga yare loolu ko seex siidiya seral mooy yonte bi la mu daa def rek sëñ bi jërutoon lenn rek di ko jox ñëpp kenn ku ne boo ñëwee da am na fu la jaarale te yoonam wi wuute ak yeneen yoon wi ci yu bari mooy mën ngaa doon murit te tee nga siyaare sëriñ bu la neex jox ko cër màggal mën ngaa doon sax murit te tee nga jël wird ci beneen tariqa loolu Cheikh Mouhamadou Ibn Dagana moom la wax ci Irnaul Adim loolu lu lu lu lu ko wuutale lool ak yeneen tarixa yi la te boo nekkee ci murid gi mel na ne yaa ngi ci tarixa yi ci des yëpp hadi tariqati alladi eh, fi hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladina jamau loolu la wax loolu it moom nañ ci wax lu bari ba ci njàngin alxuraan mi muy jàng muy warsh xam nga ne mooy qiraatu naafia naafia ba tey moo nekkoon madina moo ko imaam malik ñoo jamonoon teel imaam malik dara wax ne qiraatu naafia sunna qiraatu naafia sunna la yonente bi itam xam nga am na juróom-ñaari jàngin waaye wi mu ëppoon lu muy jànge mooy mooy njànginu naafian bii mooy bii nu jànge noonu aglabu qiraati nabi kaanat naafia loolu ulamaaw yàgg nañ ko wax mooy yonente bi njàngin yëpp daa jànge mu ëppoon lu mu doon jànge mooy mooy njànge mi moo tax sëñ bi tànn ko daa ko jànge kooku mënoon nañ ci wax yu bare bare naafia fi ne bu ma saa toog di jàngale dañuy gis gémmiñam xet gu neex di ci bàyyi ko ñu laaj ko waaw yow lii lu ko war a waral mu ne man ka dama mas a tëdd guddi gént gis yonte bi muy tifli sama gémmiñ ca laa xëy nag boobu ba léegi sama gémmiñ di xeeñ lu neex yéen ñooñu ñëpp ku ci ne boo jàngatoon dundam da gis li ko booleeg sëñ bi mooy bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam kon daal kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba dundam gépp ci yonte bi la ko def man mosuma xam ku bëggee noonu yonte <laughs> koo xam ne lim ko jaral li ko yonte bi jaral mosuma gis ku jaral ku ko yonte bi jaral moom dëgg yàlla gis ngeen lii nii yii népp dag ko way ba pare ci mujj gi dalaa wax ne lakin ajastu amal tamastu wa ma madaxtu kannu balaay xaaram bi daal di xaara fuaadi an mathi haadi lil budalaay fa kayfa ahwi madxan li muxyi wal madxu muxyi lil uqalaay lakin wana dëhra an amdaayihi suara waaw wax yu bare bari mooy man lottu naa ci taggu ko lii lépp wax naa ko waaye taxul moo mën a jot nag dëgg-dëgg tagg ko kooku yombut a tagg loolu daa wax ba pare itam da caa boole ne ko yow maanaam moom da koy liggéeyal ba pare di ko sant mu xadimuka raadin an ka faqbal shukurahu maa ngi lay sant nang ma nangul cant gi ba pare itam waxtu ne dara bëgg xelam ñëpp lim ci xalaat mooy bis ba muy tas tase jeeg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis ba nga xam ne ca la ñuy ca la ñuy dekk tam topp ci ginnaaw sayidna muhammad alayhi salaatu wa salaam damay jeexal foofu rek gis nga li mu wax ne samadu jut lii bi jaahil Moustapha xasriya xalfahu bi daalil xulafa mooy suñu borom li ma lay ñaan mooy nga may ma bu ñuy dekk rek naa gaaw topp ci ginnaaw sang boobu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ma dekkee ak moom. loolu gis dama ci am nettali boo xam ne foofu lay tëjee boo xam ne ñoo xam ne sëñ Basiiru boo xam daa ñëw ko ne ko man de sama kër gi dama ko doon jaay. ba kii laa ko jaay kii moom laa jaay sama kër gi ma yoroon ne sëñ bi wax ko ne ko sëñ bi nee na biñ ko ko waxee dana teg ba mu yàgg mu ne daarun istaraha mayitun min mayitin kër ngi goo xam ni ab néew moo ko jënde cib néew ne ñëpp ne cel jataay bi ne teg ba mu yàgg mu daal di wax waa ne ko laa tarkananna la dunya wa ma fiha li annahu jalla yufniina wa yufniha imal li daarin xadan rilwaanu xaasinuha wal jaaru ahmadu wal rahmaanu baaniha qusuuruha dahabun wal misku tiinatuha wa zaafaraanu xasiisun naabitun fiha bayit yi ibnul qaasim moo ko wax yaakaar naa ibnul qayim ne ko bul jeng mukk di jëm àdduna ak di ko sàkku ak wuti kër fii ci àdduna lool la wax waa ji ndax àdduna day jeex yàlla dana la jeexal àdduna jeexal na ñun ñëpp moo tax na nga wuti kër ga nga xam ne boo fa nekkee yónnante bi nga fay foofu rek la xelam nekkoon luñ luñ ko mës a wax di daal di xelam di daal dem directement ci yonente bi alayhi salaam mu tudd ko bëgg naa ci indi yeneen moo tax mu gi nag yàlla defal ko toujours mu jànn ak yonente bi li gën a yéemu ci sëñ bi mooy waxtu ne mi ngi jànn ak yonente bi loo ko mu ko moo tax mu daa wax umri wa ilal jinaani du mu ko waxal sax wa umri ilal jinaani iidu mooy man ci feet laa ne bis bu set bis bu ne maa ngi jàkkaarloog moom alayhi salaatu wasalaam maa ngi jégalu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Ahmadu Mbàkke Murtada ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne moom nga ñu dikk tey jii nii te mu aju ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak bëgg gu mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga andi ñu ci ay firnde yu bare bare bari ci gépp wàll nag danga naa waxtaan wi nekk na waxtaan woo xamante ne waxtaan bu matale la nekk na loo xamante ne tamit bu ñu ko dégloo kenn ku nekk ku di jullit ku nekk war ngaa bàyyi xel ci ne kii mooy ki mat a sopp te soppin wi nga soppee kon dañuy jox kàddu gi rek oustaz Ahmadou mbaw xam naa ne laaj yi bari na lool waaye ñu jéggulu ci yenn mbokk yi rek ndax waxtu yi moo ko xat ba tax xam naa ne yenn laaj yi du mën a jàll kon dañuy jox kàddu gi oustaz Ahmadou Mbow su ko defee mu indi ñaari laaj wala ñetti laaj rek balay waxtu wee jeex incha allah ñu fàttali ne suba incha allah sëriñ Abdul Muhaymin Mbacke dañu fas yéene dalal fii jataay bi incha allah sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ngi ci weeru koor bu tedd bi di leen ziar ci turu ñu ngi lay sant bu baax di wax ni mawduu liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe laaj yi bari na lool te li koy firndeel mooy bàyyi guñ bàyyi xel waxtaan wi ak itteewu guñ ci itteewu ndax sëriñ Tuubaa mooy lépp mbokk mi nee na ci sa biir waxtaan dafa dégg ngay wax bëgg gu Sëriñ Tuubaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon laaj xeeti mbëggeel yi gu ci gën a tar li ñuy wax almawadda ak li ñuy wax alxubb ak li ñuy wax shawq maanaam xeeti mbëggeel yooyu bu ci gën a gën a tar ñaareel ba mu ni ndax nit bëgg mën naa yóbbu nit nit bëgg ba dof maanaam waaleykum salaam xam naa dama koy tegtal rek ne maanaam borom xam-xam yi wax nañ ci baat yooyu tekki nañ koo tekkee tekki ba bu ci ne wax nañ la ñuy firi xubbu bokkut ak ishq shawq nag bokkut ak ñoom shawq moo moom nammel mooy namm foofu la jëm ak xaniin yooyu ñoo bokk ay ay ay kii waaye nag xam naa ne dama koy tegtal rek imaamul xasaali bind na ci ci ixya wax na ci lu bari nga dellu ci yaakaar na moo gën a gaaw bu dee bëgg nag bëgg moom waxtu ne ki bëgg la muy jëf nit ñi day jàpp ne kii dafa dof moo tax li ñu wax bëgg li fekk ak ëggul ci ak ndof ba nit ñi jàppale ndof bëgg ko Sëñ Tuubaa ci njëlbeenam nu may la jégal dofu Mor Anta Sali lañ ko doon tudde gis nga wax na ko ci xasida yi xaaloo safihun nee nañ damaa dof li di bi sama di bëgg ma bëgg yàlla moo tax ñu ne damaa dof aywa fa yem fa saw fa yem taasu yow man ah mu siyar yi bis dana ñëw ñu xam maa yéen kenn moo ci dof bis ba ñëw na tey ña ko doon wax kenn xamu leen moom nag ilaa yow des koy xam moom kon foofu loolu mënta ñàkk ci bëgg. sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu day wax ni cofeel gu mat sëkk ko war cib sëriñam ku bëgg dof te ku dof du am ngërëm kon bëgg ba dof moo wér.